Barahi asalaamaaleykum mbokki taalibe yi asalaamaaleykum mbokki téléspectateur Proxi TV télé bi la jege di la wan sa bopp ñu amaat ak mbégte bu baax a baax baax di santaat yàlla bi mu ñu mayee fekke ak tal ñu teewaat tey ci plateau bu am solo bi di proximité à Ramadan à proximité mu nekk émission boo xamante ni macha allah taala saa su nekk rek dañ leen ciy gunge ngir télé bi la jege di la wan sa bopp foo leen nekk mu fekk leen fi di leen bégal tey nag mu nekk bis bu spécial boo xamante kenn ku nekk xam ni démb lañ doon dund laylatul xadar noonu ko Cheikh Ahmadou Bamba jàngalee ci bis boo xamante woor nañ ko rek mu digtal ñu bis bi nga xamante ni ci lañ war a laylatu xadar dina feeñ ci biir waxtaan bi bu baax a baax ndax maa ngi ci ànd ak ay borom xam-xam waaye tey di bis bi spécial ci wàllu diine ndax kenn ku ne xam na ni tey la woon xare badar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru euh, ci weer wi nga xamante ni mooy weeru koor du sehru ramadan ñu ñaan bu baax a baax suñu borom defal ñu ci ak njégal Euh, lépp loo xamante ni jaamu nañ ko ci yàlla yàlla na suñu borom nangul na ko te ñoddil ñu lépp loo xamante ni njariñ la ci weer wi te doole ci réew mi jàmm ginnaaw bi ñu ziyaare Cheikh Mouhamadou Mountakha xalifatul am di tarixati muridin di ko ñaanal bu baax a naa naalam yu rëy ci lislaam ak taxawaayam ak nangoom ak taalibeem ak njullitam yal na ko yàlla barkeel mu yàgg liggéeyal sëriñ bi te yàggoo ànd ak mbokk jullit yépp di dem ba Tiwaawan di ziar Baye Mbaye Sy Mansour bu baax baax di ko ñaanal ci taxawaayam Baye Abdoulaye Thiawlaay ak képp koo xam te ne yaa ngi sol sa dàll te lislaam tax di am mbégte bu baax a baax macha allah di dalal sunu kilifa mag yi nga xamante ni ñoom lañ àndal tey ci plateau bi ku ci mel ni oustaz oustaz moom euh, oustaz Kandji kenn ku nekk xam na ko ci biir kër gi du ma def lu dul bàyyi ko mu mu nuyoo su ko defee ñu daal di dalal suñu gan yi nga xamante ni macha allahu taala ñoom la ñu àndal ci plateau bi ñu bon doon ay borom xam-xam waaye doon ay jànkatu xasaayit yoo xamante ni ñu ràññeeku la ci biir réew mi rawatina ci ëtt bi nga xamante ni mooy ëttu Cheikhul Khadim asalaamaaleykum ya oustaz waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu aousubillahi min والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين اللهم ذكرنا كل ما نسينا وعلمنا يا ربي كل ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الوقدة من لساني يفقه قولي على باب نقول وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته دي أمتي بكتة كونتانتي تبارك الله ci di la gisaat ci tabaarakallaahu palaato bi ndax <clears throat> bi passé mbokk yu bari ñu ngi doon laaj tabaarakallaahu sax ñàkk teewaay waaye ngante li yëgoon nañu ko kon ñuy amaan mbégte tabaarakallaahu di eh, di la jàkkaar di jàkkaaroo waat ak yow comme ni nga ko waxee tey nag ñu ñëw tabaarakallaahu ñëwati eh, ci ramadan à proximité waaye bu ñu ko waxee tey nag mu doon bés boo xamante ni tabaarakallaahu yi mu làmboo ci ay fadaayil ci ay ngëneel bare na lool ba nga xam ni tabaarakallaahu laa tuaddu wala tuxsa waaye dañ ciy jéem a barkeelu suñu kemtalaay kàttan ndax nag bul wax nii rek xad eh, maanaam xad dahaba arbaabuhu ko man daqa alal baaba wala jawalija waaw lool la ko tabaarakallah borom xam-xam waan bul wax rek ni gaañi dem nañu safi ni jeex na jaaral ci yoon wa ñu jaaroon boo ci jaaree amaana même boo leen dabutit bu ñu yàkkamtee tabaarakallah bu ñu la yàkkamtee bu ñu wàññeekoo di la jël si tabaarakallah dañu la fe dañ la fekk waykat ba nee na man daqal baaba képp koo xam ne yaa ngi taxaw ci bunt bi di ko fëgg wala ja nga sax fa wala ja dees na la ubil tabarakallah tay nak suñu buntu ñu ko ubil ñen nak ñi nga xam ku ne xamne len ci l'islam bi ku ne xamne ci diine ji rawatina tabarakallah ci hadar bi di keur Cheikhul khadim tabarakallah ñu ko waxe non lañuy ñuy ki nga xamni tabarakallah xamna xam naa bu ñu ba ci biir mom rek jotton nañu waxtane ko muy Cheikh Mouhamadul Muntaqa ki nga xamni tabarakallah rew mi nak deug deug deug deug deug nak manam amel nañu ko ñukkal waaw reconnaissance war na maanaam war na jóge ci ñëpp nag delluwaat ci moom ndax nag euh, du sax euh, maanaam loo xam ne lu ñuy lu ñuy kii la waaye ku ne gis na taxawaayam bi am ci réew mi ci weer yi ñu génn loolu day wane rek ni ñoom xam nañu responsabilité bi leen yàlla dénk comme ni nga ko waxee xam naa bu ñu demee ba ci biir danañ ca gën a xoos mooy invité yu màgg yi ñu am tey waaye nuyu bu baax a baax laaw kii ñu àndal plateau bi di soxna Ndeye Fatou Thiat tabaarakallaahu ndax moom boobaak léegi mu ngi doon daw waaye tey nag tabaarakallaahu ñëw na waaye ñëwee ko nag ci bis bu màgg bi nga xam ni daje naag bis yooyu nga wax laylatul xadri bi ñu ngi ko ci war a dundal tey la bisub ajjuma aljumaatu lil jumaati kafaar lima baynahunna mu tolleek mu tombeeg euh, xaswatu badrin alay pap mhm. tey daal yaakaar naa ne jataay bi tey jii incha allahu taala dana am solo ba yokk lam daan amee solo incha allah macha allahu taala ustaz jërëjëf euh, ci nuyoo bu am solo bi noonu nga ko waxee rek ndax fi kullu man baadal waxtal chihari almoda astar waxtal kibari képp ku gaaw a sa waxtu ndaw jëm ci ak njub rek di nga nekk boo nekkee mag di nga nekk mag moo xamante ni mag mu noppaleku la te euh, dafa dañoo war a baaxoo ñun ñi nga xamante ni rawatina ay ndaw lañ na ko Serigne Saliou waxee rek bu nu wax ni jëf ju baax ja mag ñu yóbbu nañ ko waaye ku teg seen tànk fañ ko tegoon lu mu tuuti tuuti bu ñu gëstoo gis la di nga am ci tawféex ndax suñu borom moom la mu daan maye ba tey jógu ca mbaaxam gi ak yërmandeem ji dafa dàmbe àdduna yàlla na suñu borom dugal nañ ci daraja rasulullahi sallallahu alayhi wa soxna Ndeye Fatou Thiat euh, caatu kër gi maa ngi lay maa ngi lay siyaar di la ndokkeel rawatina sànce bi xanaa danga ngaa def waru baay Fall wala. non tey tey moom waaw. damaa damaa def fi Yaay Fall dëgg dëgg dëgg. ndeysaan macha <laughs> allah génn ci bula bi jàppale leen. xam naa ni téléspectateurs yi namoon nañ la ndax durant gi yëpp. jot ñu mm-hmm. jot ñu laa gis ci ci ci liggéey bi. Euh, loolu am na solo mais man maa leen raw lu baree baree baree baree bare euh, damay nuyu képp ku ñuy seetaan jamono ji njëkkee ko ci kilifa diine bu aada bi di sàkku ci ñoom ñaan waaye tamit di leen ñaanal bu baax a baax a baax tàllal sama loxo sama yaay Ndiaye jaata Ndiaye naan kan sa doom ji doorati na dékk la ay loxoom di sàkku ci yow ñaan bu wér a wér a wér di am mbégte contentement bu mag a mag su may bokk ak plateau bi ku ci mel ne jëwrin Pape waaye ku ci mel ne oustaz ndax nag euh, tollu ngeen ma foo xamante ne toog ak ci plateau mooy damay dellu doon taalibe damay delluwaat ba ci suuf daal di taataanaat ndax xam naa ne lu ma fi toog ba jug te jëleewu ma fi loo xamante ne lu ma yokk la euh, moo tax tey jotaay bi moom noo fay fas yéene doon taalibe di leen déglu bu baax a baax a baax te xam ne incha allah duñu ko réccu tey ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax mu nekk luy jëriñ bu ñu juumee ñu jéggal ñu ko te xam ne ay doomu aadama lañ matuñu te nit rek ay juum di kontaan bu baakha baakha baax ci jakarlo ak yeen ndax xamna naa ne namoon ngeen ma gëjoon ngeen ma gis ci écran bi ma ngi leen di balu ak, eh, ci wéru koor gi nga xamantene ne nañ ci muy wéru ngeenel di wéru jéggale di wéru yermandé di weer wu sell sha allah mangilin ngi leen ci balu ak bu baakha baakha baax eh, di leen bal ak ci li nga xamantene jot nañ ko sék ndax ci caméra la ngi taxaw di jakarlo ak yeen ñàkkul ne mësu nañoo wax as wax bo xamantene xeyna dem na fekk ji leen té neexu leen ñu ngi tuub bu baakha baakha baax di jéggalu di leen wax ne tay comme niko eh, sama papa yi waxé ak sama nijaay yi rek li ñu fi dajale tey jaakaar naa ne jëwrin Pape wax na leen ko bu ci kanamee tuuti dinañ ci ñëw benn par benn incha allah ñu delluwaat doon taalibe te taataan bu baax a baax a baax ci suñu euh, papa yi fi toog merci beaucoup Pape maa ngi lay ziar bu wér a wér a wér di ziar oustaz bu baax a baax. noo ah koor gi moom yëfu pël lañ koy def rek. <laughs> <laughs> yëfu pël lañ dina bari soow non xam nga ñun moom suñu lépp dafay simple dañuy bàyyi séeréer yi waa ñoom moom dañuy jël muur yi ni ci boulangerie yëpp boo demee heure boobu moom ñoo fay fees. daa mel ni yaa ngi defar njóor njóor ni ba léegi. waaw loolu suñu yëf la. <laughs> doy na waar ak oustaz li ñu indil ci ci naafile yi tey fukki fan yi ak yi xamante ne mooy juróom-ñaar. waaw eh, tabaarakallaahu jërëjëf eh, alaaj Pape نيو كو واخي وون ديك سونو تيسلاي موغي ديلو تي قره العين بو سيرين شعيب المكي رضي الله تعالى عنهم ومي خامني مو نيو انديل تبارك الله خيول جي انديل نيو تبارك الله شاك جور بو نيو تومبي ريك اك نافله بيغا خامني ا وار نانيو كو جوخي موي ليم تي نك اي غينل يو خامتاني كين مونو كو خم خمنا بلا بوبو نيو تامبالي تي Euh, incha allahu taala xam naa waxtu euh, waxtu julli alaaj pap mhm. waaw waxtu julli incha allahu taala waxtu julli mu ngi déparé bu dee fajar gi ñu ngi euh, daanaka salaatu 5 heures 31 incha allahu taala su gi ñu ngi koy julli ci 5 heures 46 bu fekkee 5 heures 31 ñuy julli kon daanaka tabaarakallahu 20 maanaam 20 et quelque war nañoo war a mën a bàyyi xëdd bu ñu bëggul lekk lool tisbaar gi changé wul tabaarakallahu 14 heures et la tàkkusaan gi kazalika 17 heures 0 minute la 19 euh, heures incha allahu taala 35 la ñuy julli timis 19 heures 20 20 heures 20 incha allahu taala ci la ñuy julli euh, ci la ñuy julli euh, géewe laa bëgg wax heure waxtu dog yi tabaarakallaahu ci réew mi yëpp boo demee ca Touba Almakki yi tabaarakallaahu 19 heures 26 la ñuy dog Tamba ñu ngi dog 19 heures 18 19 heures 24 moom la waa Saint-Louis di dog Thiès boo demee 19 heures 30 incha allah 19 heures ñu teg 26 minutes ci la waa Diourbel di dog Kolda ñu ngi ci 19h21 tabaarakallah Kaolack ñu ngi ci 28 incha allahu taala Matam mu ngi ci 21 tabaarakallah Louga mu ngi ci 19h24 30 mooy waa Dakar Casamance ak Sédhiou ñu ngi ci 28 Fatick tamit mu ngi ci 28 kadalika toujours naafila tey gi comme ni nga ko waxee ñu ngi ci fukkeelu guddi ak juróom-ñett. tabaarakallaahu ku tedd ki nee na képp koo xamante ni jàng julli nga ci fukki ràkk mu doon juróomi sëlmal ràkk bu ci nekk nga jàng ca faatiha tabaarakallaahu euh, jàng ci sabih isma rabbikal aala ba mu jeex euh, benn yoon xul yaa alu kaafiruuna benn yoon ixlaas benn yoon tabaarakallaahu yi ràkk yëpp loolu ngay tari mu doon juróomi sëlmal incha allahu taala wax nañ ci ay ngéneel yu bare bare kon mbokk yi daal tey lu ñu sonn sonn euh, wala lu ñu topp émission bi ba mu jeex daal bala ñoo euh, euh, fatu daal alaaji Pape nañu fexe ba nañu def naa fi léegi ndax ngéneel li ci nekk bari na. macha allahu taala mu doon am solo waaye mel ni oustaz fukki fan yu ci weeru ko romb na ñu toog ci fukki fan yi nga xamante ne moo nekk ci digg bi. Hmm. mel ni bari na ay ngëneel loolu. waaw xam nga comme ni ñu ko waxee woon weeru koor moom ni suñu borom subhaanahu wa taala waxee woon ni laallakum tattaxuuna daanaka mooy moo ñu yóbbuwaale ba mu jeex ndax ragal yàlla gi examen bi ca tàmbaliment bala ba ca fin ga fukki fan yu mujj yi fukki fan yu njëkk yi jàll na ne ko yent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni awalu rahma fukki fan yu njëkk yi yërmande la yàlla ñu yàlla yërëm fukki fan yi ñu toll mooy maxfira mooy njëggal tabaarakallaahu te ku ne xam na ne nag ñun suñuy taq ak suñuy tilim suñuy tooñ alaaj Pape damay faral di wax ni buur boo xamante ne ay waxam du dañ mukk bu taseeg jaam boo xam ne dëgër na bopp te du togg te du te topp ndigal foofu bu fa yërmaande amul musibaam kon moo tax ñun danañu aajow suñu borom lool tabaarakallaahu euh, mu yërëm ñu fukki fan yooyu moom la ñu toll euh, mu mel ni rek euh, bu ñu fi tollee nag ñennet ñi nga xam ni xawoon nañoo sawatu dee gis ñu commencé di bàyyeeku waaye gën leen a takku rek waaw gën a farlu ci naafila yeeg saraxe yeeg téye làmmiñ yeeg comme nañu ko waxee woon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la mu waxoon ñu gën ko bàyyi xel mooy bu fekkee bàyyi nga lek ak nan ak sëy waaye teewul tabaarakallaahu bari na yo xamanteni suñu borom tere nako ta te ko ne diko def su boba lamu lay lamuy wañi ci sa yoolu koor day bari ndax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam manam waxna ci ben hadith ni man lam yada qawl adh-dhur wal amali bi fa laysa lillaahi xaaja fi an yada taamu wa sharabu waxul sax lek ak nan wala sëy mais dani waxi mbóoranti ak jëfi mbóoranti kaf gu bari gi jëf gu bari gi Eh, maanaam kaf gu bari gi ci wax ak eh, kaf gu bari gi ci jëf képp ku ko bàyyiwul nee na kooku amul njariñ amul yàlla benn njariñ muy bàyyi lekk ak naan kon da gis ay pap koor mën na bañ a yàqu tabaarakallaahu zaahiran waaye boo ko toppee dëgg-dëgg borom bu xëddee ba pare amoon cent pour cent ba wutul dina wax wala muy jëf waxoon naa ko lii doo daf ciy bokk carte daf ciy bokk seetaan yenn film yi daf ciy bokk ndax innamal xamroog maysiroog arsaaboog azlaamoog yëpp yàlla ne rijsun min amali seytaan ba noppi joxe ndigal ne fajtani boobu kon la ñuy la ñu waral mooy bu ñu wooree te sax alaj pap ngëneel li ci nekk dafa jéggi dayoo sunu aman sallallahu alayhi wasallam nee na nawmu saa'imi ibaada ki nga xam ne dafa woor tayyeel la tayyeel tayyeel ba nga xam ne ragal a koor moom bu xëddee julli tëdd na yeewu tisbaar julli tëdd takkusaan mu yeewu julli tëdd timis mu yeewu dog nee koku kooku donte sax islam limi bañ ak tayel yeb nee naw musa imi ibada koku woram gogu ànd ak di nelaw gi ñu ko ci considérer comme kuy jaamu yàlla wa sumtuhu tasbix bu ne tek nak waxul dara jàpp ñàmburam ñu koy bindul ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wa amaluhu mudaafun nee nak bu deme tabarakallah ba nga xam nak nag wëlbatiku nag di jëf nak mo xam ni def na ay yité ci di dem liggéey nee koku jëf yu dañ koy ful mudaaf lu ñuy multiplier la kon nga gis ni ay pap suñu borom daal lim ñu defal ci ngëneel ci ci koor gi ci ay ngëneel ñu war cee profité moo tax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu wax ni kenn gën ta perte ki dund weeru koor ba jeexal ko te baalu ñu ko bàkkaaram yëpp ëpp na di def weeru promo la moom la Oustaz Abdallah wax keroog ni oto mbalit bi daal ñëw na nañ ñëpp xëpp suñu mbalit yi mu yóbbuwaale ñu ko tabaarakallaa bu demee est ce que déwén danañu fi fekkeem déet mooy laaj bi alaaj baab macha allahu taala mu doon lu am solo yaakaar naa ne ku ci bàyyi xel euh, di nga ci di nga di nga di nga góorgóorlu ndax ginnaaw boo boo boo rafetalee سلام تيس الله من سخني دفلك أيتو يا بره وترى نعج جف جف جرفة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر صلاة على النبي مغفي أم دول اللول بري أنجرين دول دفوت خل دكوا رفتال دسال دلوا جو خل بسلم mu nekk ay njariñ yoo xamante ni bu si nit sàlloo rek macha allahu taala suñu borom dina ko yokkal ay tuyaabam waaye itam dina ko yokkal yërmandeem te dana taxe àdduna ak alaxira du ñu def lu dul dem rési rek ànd ak suñu service bi nga xamante ni mooy service commercial bi dem seeti waa kër Serigne Saliou Peinture su ko defee ñu si waat bi daal di présenté suñuy gan ak duggal yéen ci émission bi nga xamante ni ci la ñuy waxtaane Cheikhul Khadim mi moo liggéey la mu génn liggéey wax ne sunu borom bu ma ñëwee liggéey bi kat li muy rëy rëy benn yitte laa ci am mooy képp ku nekk ci réew ak képp moo fekk bu mu dégg réew sama sax ba di ko gis mu dem rési incha allahu taala jël suñu publicité jël si waat ci plateau bi. Abdullahi wa Amadu xew waaw lu ñëpp doon xaar yegsi na yéen ouvrier am ngeen gadde gan bu ñëpp doon xaar yegsi KSS spécial peinture kër Serigne Saliou indi leen ay original peinture vente à gros et détail ak bépp matériel peinture décoration de bâtiment KSS ya mësa de ànd ak yéen ak lépp loo soxla si peinture voiture peinture importée Stico Alliance déco perlage déco sablé enduit à huile coloris prisma coloris senac da ngay seet lii rek KSS nekk fii si Kër inter 5 côté Ecobank bi yoon bu terminé 111 bu bëggee am lu leer wooteel 77 798 20 83 mbokk yi képp ko bëgg lu baax wala rafet doosul gaaw kaa SS spécial peinture kër Serigne Saliou Seydina Muhammadin xayril wara acca yaa xayra del fil ataabil bisirol madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bi la adadi noonu la Sëriñ Tuubaa euh, gatandoo woon weeru koor ga ca àll bu nga xamante ni àll bu jafe la bu ñu def lu dul dalal ki nga xamante ni mooy Sëriñ Daaru euh, moom lañ ko tuddee muy Sëriñ Daaru Asan moom la Sëriñ Tuubaa waxoon ñu ko bala ngaa dee bala ngaa génn àdduna di nga dégg waxe njanaaw yi te it ba mu demee ba dégg ni nga xamante ni noonu la picc yi di waxtaanee ca garab ga mu yend woon dafa jàng alxuraan xasayet moromu picc mi ni morom mi fu nuy fanaani mun ko xanaa ca garab ga nu yendoo jàng alxuraan xasida mu doog xam ne la ko Sëriñ Tuubaa waxoon ñëw na muy dig ba lu ñu def lu dul bàyyi sëñ Daaru Asan di barkeelu ci tur bi te di ko ziar te di ko ndokkeel sëñ Daaru Asan ñu ngi lay jégalu coono yi di la masaw di la ziar ci weeru koor bi di la baal xaq te di la baalu ma bàyyi la nga nuyoog euh, téléspectateurs yi nga xamante ni boobu ba léegi lay bàyyi xel di la xaar ci liggéey bi ñu ànd ak yow ci weeru koor bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل من لم يحبني من الرجال والنساء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته غر الميامين من اقتفى بأثارهم إلى يوم الدين بكي جلدي بكي طالبي نيغي نيو باخ دي زياره ديجيتال نيو بي اك زياره بي sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal yàlla mu guddal aw fanam te may ko wér balim naa la ci lislaam ak ci liggéeyub sëriñ Touba bi sama borom may ko mu yeggale ko ni ko bëggee yàgg fi lool ànd ak njabootu sëriñ bi ak taalibe yi ak jullit yëpp ginnaaw loolu ñoo ngi leen di ziara sëñ Pape di ziara oustaz di ziara sunu mbokk yi jànkat yi sëñ Ibra ak sëñ Allah di ziara sunu. soxna su baax si di ziare waa kër gi yëpp ci directeur ba ci suuf di ziare koo xam ne rek mi ngi jàkkaarloog télévision bi di Proxi TV di ko seetaan te di leen ndokkale ci weer bi te di leen balu xàq bu baax comme ni ko waxee di ñaan sama borom mu may ñu ñu fekki ko at yu bari te may ñu tawféex ci li ñuy waaj a dugg moo defal ñu ci tawféex ñu dajee ci ndimbalu sëriñ bi ak ak ak ak ak ngërëmam mu def ko ab liggéeyam bu mu nangu. yalla na sama borom defal ci barki suñ touba ngi ziar bu baax mbokki Kër Massar rawati na fi Touba Sotra gi nga xamne mom moy sunu kon eh, sëñ pap kaddu gaa ngi noonu bu mu wat ci ñun rek inshallah allah. sha allah sëñ Daaru Asan ñu ngi lay ziar bu baax di la euh di la ñaanal jamu ju and ak tawfiq ci xam-xam bu rafet bi xamna ni dina gëna am solo nañ ko mbokk yëpp bayyi xel top ko waxtaan ma sha allah taala duñu def lu dul bayyi allah kan nga xamante ni jànkatu xasaayat la mom tam doon dawju jambaré jàmbaare doon ko xamante ni ku fonk boppam la ku fonk liggéey bi la ku fonk yi la seigne allah ma ngi lay nuyu te di la assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi lay di ziar bu baax baax di ñaan ci wéru koor yi ñu nekk yalla yalla defal ñu ci xéewal ak sutura bu bare bare bare bare mboolem luñ ci wor rek yàlla na ko yàlla nangu bi barakati cheikhul xadim ci barke guddi gu tedd gi ni lailatul xadar ak bis bu tedd bi di bisu badar yàlla ko yalla def donc leen di siyaare pap cuun ñu ngi lay siyaare bu baax baax di siyaare bu baax baax oustaz kanji sëñ daru asan ba ci sëñ ibrahima sàmb bu baax mi ñu nekkal ak soxna su baax si donc leen di siyaare bu baax baax di siyaare sëñ ñom ñep rek sëñ fallu di len ñaanal di ñaan wor jankat mom hmm. doy na ah wóoru jànkat kay ah, comme wóoru ñëpp la rek. wóoru taw féex la daal. wóoru taw féex la rek yendoo durus wala yendoo nelaw. waaw yendoo durus rek. <laughs> macha allah xanaa ak fi jamono tollu ren. ci conférence yu yu gàtt yeeg ñi nga xamante ni noonu lañ ko baaxoon daan defee mu mel ni daaw ak ren activités yi bariwul. nan ngeen ko dundee nan ngeen ko dundee. waaw kéemaan la kay. Mhm. xanaa nekk ak yàlla rek. macha allah ak yàlla rek. Mhm. yàlla moom lu mu def rek. moo gën ndeysaan mo gën di di sant rek nak wax deug yalla mhm. li li ñu naan ku dund ba ba ba déwén mhm. lekk ba deewen rek mo ci nek yalla mom ku mu ku mu sak rek mhm. li war ci yow mo koy def wa non rek lañ ko lañ ko andé sant rek daal macha allah di ñaan nak suñu borom jëlé fi feebar bi nga xamanteni bi mo fi nek sonal ñëpp di ñaan yalla jëlé ko fi bañu ci activité yi bu baaxa baax conférence yi incha allahu rabbi ñëw ni mu daan mel mu mel ko. macha yi tamit na mu daan mel mu mel ko wax dëgg yàlla. waaye nag sant nañ bu baax a baax. sant nañ bu baax alhamdulilah in shakartum la azidannakum te inna allaha maa saabirina yàlla mi ngi ànd ak def lu dul bàyyi sëriñ sëñ Ibra Samb waaye sëñ Ibra yow moom dama lay bàyyi nga nuyoo ak xasaayit. i inni bi bika wa zurriyataha mina shaytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatini wa a'uuzu bika rabbi an yaxduruni barke Cheikh Massamba barke Cheikh Massamba fas yéene liggéeyal maam borom Touba fas yéene liggéeyal maam borom Touba fas yéene jëriñu ci xasida yi fas yéene yëkkatiku ci xasida yi ci barkeb Serigne tuba Serigne Mor Samb hamdi wa sukri li man kulli bihi saara lahuri dan duna suxtin inda sarsara loo sanaa وردوان بلا سخط مصاد لي من بني دايمان أنصارا لله كل لدى لله كل لدى أبار مكرمة من هرتهلنا وفي هجم من سارا نلسي نيلا سرسار خط خسدو شارتي فارخو شارتي فارخو فارخو فارخو فارخو دارني أو سارا إن اللي نيلا سرسار خط خسدو شارتي فارخو شارتي فارخو شارتي فارخو دارني أو سارا زيارتي فارغة زيارتي فارغة فارغة داريني أو سارة دي برم توبا pap ma ngi nuyu di ziar te balu ak Jadi di bal ak ñepp di ñaan cheikh mohammadul muntaha mbacke yalla sa borom yagal ko fi di ko ñaanal wër ak wër la ci barke cheikhul khadim banna mu bëgg liggéeyal maam ju tedd yalla sa borom motali lepp te di ñaanal kilifa diini fi nek rek ak julit bu ñuy seetaan waa àdduna ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di siyaar baax sëriñ Alla kan mi nga xam ne si moom day sunu kilifa du doon ku baax waaw ñu am ci mbégte lool bokk moom plateau bi ñu ngi koy ñaanal tawfiix ak taysir di nuyu Oustaz Kanji ak sëñ Daaru Asan ak Seydina Jibril ñoom sëñ Fàllu ñoom ñëpp waaye rawatina ñi ma àndal nag muy Seydina Jibril ak sëriñ mustapha Seck ñoo ngi leen nuyu baax di nuyu soxna su baax si tedd si ñoo ngi nuyu ñëpp daal tey am mbégte lool barkal xuraan xasaay di jërëjëf jërëjëf sëñ Ibrahima am di wax sukkur bi am na solo euh, noo ngi lay ñaanal suñu borom gën a wéral sa baat du di ziar sa sëriñ Aydara Mbàkke moom sëriñ Daam Faati di ko ñaanal bu baax a baax suñu borom gën koo taxaw sëriñ Masamba Mbàkke jaxaay ak sëriñ Cheikh Tidiane ñoo ngi leen di ziar bu baax baax waaye oustaz tey may wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dafa am sama euh, kilifa goo xamante ne yàlla dafa dogal mu wàcc liggéey muy Baye Moustapha Sëy tey yàlla dogal mu nekk ñetteelu fanam ñu ko doon ñaanal waaye joo xamante ni ku rafetal ak dundam la mag la waaye mag mu bëgg lislaam la ku fonk alquran la ku fonk ku fonk liggéeyub Serigne Touba bi la ndax yàlla dogal na li mu tabax ci ay juma tabax ko ci ay daara feenu nekk moo nu taxaw dafa am bis ma abbu ko daara joo xamante ni daf ko jëndoon di ko tabax ma def fa daara yi xasaayit ak alquran bi mu ñëwee xool liggéey bi mu neex ko mu daal di jël barab ba def ko daara yi alquran tuddee ko kër sëñ Touba yëkkati caabi ji jox ñu jël kër ga mu dendoon bu nekkoon kër ñoo xam te ne du ñu woon ay jullit dañ ko bëggoon a def jaay jaay fu ñuy jaayee sàngara bu jënd ko def ko jumaa boole ñaari barab yooyu yëkkati caabi jox ñu ko ngir jëmmi lislaam te it dañu loxoom di di ca nekk muy fay courant di fay ndox te it noonu la ko defee ba daara ji mujjee ubbi ndindi la ko def def ko ngir yàlla ak lislaam daan toog ba yàgg muy sant yàlla di tuur ay xéwal li may sante yàlla mooy lii ma yàlla jox ba pare may ma xool ak xelu ma koy ma koy delloo mu doon jëmm joo xamante ni li mu liggéey lislaam yaatu na daara jooju la muy gàtt-gàtt ci at yu néew la waaye bu fii may waxee yow kay jiite daara ja ci naafila ci weeru koor wi ñu toll kaamil Alxuraan lay jànge te amagul fukki at ak lu teg dafay mel ni liggéey bu rëy la ma bàyyi la ak sëñ Daaru Asan ngeen ñaanal ko ñaanalal dool li ko dolli ko ajana ci ajana yi gën a kawe mu teel a gis ak Cheikhul Khadim te suñu borom goreel goreel ko suñu borom jéggal ko lépp bañ koo topp dara ci daraja rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax jafe na nit ko am alal am njaboot mënu ko def feneen bis bu nekk nga gis nit di woote lu baree bari waaye jom ak ngor ak fulla ak nangoo liggéey daraan toog ba waxtu tisbaar jot mu jënd gerte caaf di ko xéwloo di tëdd ci jallu suuf yi ngir liggéeyal yàlla ngir taxaw ay jumaa jumaa jooju bi mu koy def dina dajale suñu adiyee daf ni nañ ko delloo ci biir liggéey sëriñ bi te lépp ñu ñaanal ko rek suñu borom defal ko tawfeex ba mu mën koo yeggale te loolu dañu ci ba bis bi nga xamante ni moom la wujj suñu borom ma bàyyi nga nga nga tabarakallahu jërëjëf ah, alaaj pap loolu am solo ndax eh, tey rek bi tafsir ba eh, yegg bi ñuy tafsir surtout taxaabuni bi ñu yegsee rek daf fàttali aaya jooju yàlla wax ni man yuqridu llaha qardan xasanan fa yudaifa lahu ajran mhm. képp kuy lebal dal na nga lebal yàlla suñu borom subhanahu wa taala ndax tabaarakallaahu jaam bi lépp lo xamanteni yàlla dénk na ko jamono bi mu koy dénk ci wér ci xam-xam ci alal ci daraja na ko wóor ni ko jamono yooyu xëj na ko ñu bari jox ko la ca yàlla bëgg nak moy mu wëlbatiku tabaarakallaahu dimbale ci dimbale ci yàlla xam nga manam mu ngi melni wa is qaala isa ibn maryam lil hawariyin man ansari ila allah qala al hawariyun nahnu ansaarullaahi dimbali yàlla du ciage ni yàlla da nga fekk sànceem bu yegul nga dimbali ko dedet dimbali yàlla moy nga dimbali yàlla ci jàmm waaw alxalqu kulluhum ayaalullah jullit ñëpp mbindeef yëpp njaboot suñu borom lañ kon tabaarakallaahu kooku daal ñu ngi koy ñaanal ci barke daara yooyu mu taxawal <clears throat> ci barke jàkk yooyu mu taxawal yàlla ko suñu borom subhaanahu wa taala fay tabaarakallaahu te yéegéele ko ca barzaxu mag ña ci barke alquran ci barke shehru ramadan bi nga xam ne ci la wàcc liggéey waa alaaj pap comme nuyoo nga man tey ma profité nuyoo waale tabaarakallaahu mbokk yi nga xam ne ñoom la ñu ñoom la ñu bokkal plateau bi ni nga ko waxee ñii ñu tedd lañ ñii ñu màgg lañu lool ñoo xamante ni tabaarakallaahu yaakaar naa ni eh, eh, kii xam na leen bu baax a baax mooy eh, réew mii ñu nekk miin na leen tabaarakallaahu ngir yàlla ak liggéeyal bi ñuy liggéey lislaam suñ Daaru Asan yaakaar naa ni ku ne xam na ko fii ci Kër Masaar wala ci wàllu Touba li nga gisee ni jëmmam ji bari na tuut tànk yoo xamante ne mokkal nañu alquran ci loxoom waaye mu doon ko teey lool ku bari xam-xam lool ku dal lool waaye nag koo xamante ni yitteem yëpp yëpp yëpp yëpp rek mooy fexe nu mu jàngalee def daawatul islamiya daawatu islamiya nag mën na koo jaarale fu nekk tey fi mu toll nii bu yëkkati woon ay ahadis wala mu yëkkati tabaarakallaa beneen jàngal beneen xam-xam bu mën a jàngale tabaarakallaa da ngay xam ni rek ni kii gëstu na bu baax a baax bu wëlbatikoo nag ñëw ci tasawuf bi nga xam ni foofu la ko jàngee muy tabaarakallaahu ci xadara cheikhul xadim Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu daanaka daal da ngay mujjee waaru ak yi sëñ àll mi nga xam ni moom it namm baatam comme na nga ko xamee ñu xam ko ci réew mi ci bitim réew ngir yàlla ak tabaarakallaahu eh, eh, eh, liggéeyal liggéeyal xadara bi waaye tagg Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam tabaarakallaahu Serigne Ibra Samb ak sa moom it tabaarakallaahu ku ne xam na ko ak it mbokk yu ñu àndal muy ku mel ni tabaarakallaahu suñu mag bopp alaaj Jibril Sow nga xam ne tabaarakallaahu ñu ni ci keppaaram la ñu yaroo moo te ñu ci lii ndax ku ñu ci daan encouragé la jamono b ñu jógee daayira man ak Oustaz Mamour Seye waaw ñu daan ñëw këram lañ daan nekk mu ñu daan defal lu nekk ñu nekk ay tuut tànk waaye lii nag dañ ko yàgg bëgg ndax moom la ñu a xam ziyaara ko ziyaara sëñ xaadim tabaarakallah mi nga xam ne moom la àndal waaye loolu laa leen profité bala ñoo dugg ci waxtaan wi waaye daal kooku daal jàpp naa ne daal ñaanal na boppam bu ko cet jàppul ñaanal na boppam te insha allahu taala cet du ko jàpp bu soobee yàlla. jërëjëf yàlla na yàlla nangu ñaan yi wax dëgg yàlla moom ngeen di gis noonu ci écran bi mu doon góor gu sell doon ku baax doon yiw doon ku nangoo liggéey may fàttali nee na ma ba ci kaas fi ñuy wax kaas bi ci parcelle. kaas ba moom moo ko liggéey. waaye tekkiwul laxasaayam ba ba bis bi nga xamante ni moom la koy man moom la ko moom la ko tële daraan si kotoo bant sax di toppatoo si jumaa ji ak daara yi nga xamante ni mi ngi koy def yàlla yàlla yërëm ko xam naa ne sëñ daara euh, ginnaaw boo ko ñaanalee rek nga dugal ñu ci euh, bis bu màgg bi nga xamante ni tey mooy yow ma badar ak euh, ni nga xamante ni noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam dundé won ci teunk rek ak ni nga xamanteni non non la ko andé won sahaba yi mu doon bis bu reuy waye doon bis bu tiss waye doon bis bo xamanteni mo na gorel ba tay ñu mëna dundul islam dundu gu sel bismillahir rahmanir rahim euh, sëñ pap xamna loolu mom dañuy ñëkke rek ci suñu bay bi nga xamné mhm. mo ngay fatale ko ci ay ñaan bay mustafa sey bay mustafa sey mhm. ñu koy ñaanal yalla yermande ak yàlla na ko alquran rëm ci liggéey bu rëy bi ñu ko liggéeyal waaye yàlla na dajeeg sëñ Tuubaa mi nga xam ne nii eh, mooy moom la doon liggéeyal ci lislaam liggéey bu rëy la la liggéey ndax lislaam moom ku koy liggéeyal moom eh, jaar ko ci alquran jaar ko fi nga fi nga war a jaar saa gis nga ngir ma fàttali la doomam ju ndaw bi mu tuddee euh, sëñ Saliou mm-hmm. bi mu demee di ko dugal euh, daara ñu ngi ko joxoon sëñ Baara Bousso mu ko laajee ñaata at la fi a ma xaw ma déwén fu may fekk te damaa bëgg mu am alxuraan moom foofu la ko alxuraan tolloon. xam nga loolu tawféex la tawféex moom mooy suñu borom dimbali la may la war a ba noppi taw féexale la nga di ko nga di ko def ci ci ci lislaam euh, rawatina fi mu ko doon def nga xam ne loolu yonent bi saa salaam am na lu mu wax ne doomu adama bu génnee àdduna jëfam yëpp dagg na ba mu des ñett bokk na ci bokk na ci ñett yooyu bi mu fi bàyyi nii muy muy bàyyi daaray alxuraan ñu di ca jàng di ca tari alxuraan nga xam ne tey jii ki doon ki naafalekaan bi ci daara ji la jàngee mm-hmm. loolu dara gënu koo rëy loolu mooy jëf ju dog ba faw loolu nag mooy mooy ah, mooy mooy mooy mooy mooy warsak loolu sax moom mooy mooy mooy dëgg-dëggi warsak ndax nit ñi moom dañoo toll ci jamono joo xam ne da ngay dajaleel aw nit dajaleel aw nit moo leen gënal dajaleel seen bopp dajaleel aw nit mooy di dajale loo xam ne da nga ko fi bàyyi dajale sa bopp nag mooy li ngay li yàlla warsagal nga di ko jiital fa nga jëm loolu mooy dajale sa bopp te jiital ko fa nga jëm nag weesuwul def ko ci jaam yàlla yi def ko def ko ci néegu yàlla def ko ci alquran rawatina alquran ci jamono jii man toujours damay wax ne man su fekkoon ne jamono jii man damay tabax du ma tabax jàkka du ma tabax jumaa daara alquran rek laay tabax ndax gis naa ne moom la jamono gën a laaj moom la diina gën a soxla sax fi mu toll nii ndax balaa balaa jumaa yi ak jàkka yi daara ji te boo boo déggee yu bari ngay dégg ci jàkka ji da ngay xam ne daara ji lañ defarul moo tax muy am ci jàkka yi ak ci jumaa ji kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla yërmandeem ak njéggalam bu baax ci barke Sëriñ Tuubaa li ci topp nag mooy li nga li nga wax léegi muy ba badrin euh, mu amoon ci ci ci ci bis bii nga xam ne mooy mooy fukki fan ak juróom-ñaar ci ci weeru koor euh, muy bis boo xam ne nag xam naa bis bu bari ay mbóot la nitu yàlla yi xam nañ ko ndax bis la boo xam ne euh, képp ku naan ashhadu an laa ilaaha la war nga cee santaat yàlla bu baax ndax bis la boo xam ne ci la lislaam taxaw mooy xare bi nga xam ne lislaam moom la njëkk a def moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis boobu la ko suñu borom njëkk a ndigal ngir mu dajeek ay noonam xam ngeen ne lislaam bi ko yonent bi saa sallam jotee ci ndigalul boromam woote ko woote na ko ci makk at yu bari fukki at ak ñett sax na ko makk di ko woote ñu di ko bund di ko di ko di ko méttital di ko tomarankel moom ak képp koo xam ne rek gëm nga yàlla ànd ak moom di leen fitnaal lu ñaaw loo xalaat jëf ju metti joo xalaat def nañ leen ko beddeeku nañ leen beddi nañ leen yàgg nañ sax ba abandonné leen ba nga xam ne bu ñuy jaay kenn du ko jënd bu bu kuy jaay bu même bu ñu yoree xaalis bu ñu jëndee doo leen doo leen jaay kenn du leen may soxna kenn du leen ñaan soxna beddi leen moom non seulement ak ñi ko gëm waaye moom banu Hachim banu Hachim mooy mbokk yi ku gën a jege waaw. Qurayshin bu yaatu la waaye Banu Hashim mooy mbokki yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi ko gën a jege moom ak ay bokkam yi ko gën a jege ak ay fidèlam ñoom ñëpp dañ leen a beddi euh, abandon leen ba nga xamee yegg nañ ci di dagg ay xobi garab sax di ko jëfandikoo yemuñ ci loolu waaye lu ñaaw loo xalaat ñu dem dangay gis kenn ku ku teg ak cinam di ko togg am ku jógee fële jël ay sébrit ñëw sotti ko ci waaye li yàllay def dem nañoo dema dema dema dema dem dema ñenn nag ci seen biir la yàlla jaaree ci ñoom tàggat seeni xol ñu taxaw ne ñu ñii daal li ñu leen def jaaruwut loolu moom ak lu mën a xew moom nañ ko dindi muy juróomi nit nit ñu waxtaan ca daal di ciy dox ci ci ñoom ca la yàlla suñu boroom jaaralee loole ñu ñu daal di ñu daal di koy ñu daal di ñu daal di ñu daal di dindi loole loolu bi mu weesoo sallallahu alayhi wasallam bi mu fi jógee mu daal dem yu bari bari bari bari la waaye ku ne xam na ne nit des na ko rusee wala ñu ragalee ko yonent bi saa salaam ragalee woon nañ ko ñaar euh, bàyyam Abu Talib kilifa woon ci ci ci mag yàlla da ko dénk ko njaboot gu góor gu bari ñu ragale woon nañ ko loolu euh, ragal euh, ragale woon nañ ko soxnaam muy Sayyidatuna Khadija nga xam ne yàlla da ko dénkoon war sag muy mu mu doon dimbalaa kon ci dëkk bi kenn ku ne seq nga ak moom lu tax nga am kersa ci jéggi ko di dal ci ci ci ci ci ci kilifaam ci salaatu salaam ñaar ñoo ñu nekk ay kiraay ci moom waaye suñu borom moom eh, li mu li muy def da xam naa dafa dafa bëgg daal yonent bi saa salaama léppam moom suñu borom moo ko jagoo. ci ci ci taxawal mbiram ak dimbale ko moo tax sax lépp loo xam ne nii nit mun na cee mos na ci mos a jàpp ne lii xay na bu ma ci wéeroo moo may dimbale rek suñu borom dafa évancé loolu ba mu sori ko. li ci njëkk mooy. waa juróom bu góor bi mu daataa ñëw àdduna fekk ko fi bi mu ñëwee àdduna ba am juróom-benni at waa juróom bu jigéen suñu borom da koo jël maamam euh, Abdul Muttalib jël ko wuuf ko ak bëgg gi bëggoon ci moom nga xam ne turu Muhammadam bi moom moo ko jox. Mm-hmm. bi mu amee juróom-ñetti at suñu borom jël kooku. dese dese deseetul kenn kon ñi mu waroon a wéeru ñëpp suñu malgré tout suñu borom def ci moom li mu li mu def ci moom yëpp nga xam ne itam bokk na ci kiimaan yooyu mooy mu nekk mu juddoo ci dëkk boo xam ne ak jamono joo xam ne. jamonoy jaahiliya la maanaam ay woy réer nga xam ne ci ci ci ci logique moom mi nga xam ne dafa ñëw fekkul fi waajur yu ko yar maanaam moo waroon a gën a doy waar loolu imam Busayri yaakaar naa ne wax na ci sax ne bokk na ci gën a yéeme mooy salaa salaam jikko ju rafet ak teggin ji mu am ci ci ci circonstance bu mel nii bu ndaxatal yooyu metti waaye ab yónent lu def dara lu dul ci ndigal boroomam ànd ak jafe-jafe yi lu muy metti metti yàlla joxul ko ndigal ngir mu ngir mu gàddaay dem fenn euh, dem na sax ba yebal aw ñennat ci ay ci ay saxaabaam ngir ñu dem Éthiopie ngir ngir dem dégg na fa buur boo xam ne nii bu màndu la du tooñ te kenn du tooñ fi kenn fi fa moom mu mu mu yeble fa waaye moom daal amagul ndigalul jóg moom ba keroog bi suñ borom defee ci ma jox ko ndigalul mu war a gàddaay dem Madina mu ànd ko ak Seydina Abubakar ni Siddiq mi nga xam ne moo doon laxeen loxol ndeyjooram Euh, kii ko njëkk gëm wala kii ko njëkk gëm ci mag ndax Seydina Abu Bakar as-Siddiq moom yontu bi saasam danay bëri rek mu mu mu mu gëm ko lam lam lam njëkk dégg ci yontu bi dafa daal di dëggal lool am na sax ñu wax ne as-Siddiq boobu ci ci loolu la jógee waaye bi muy bi muy bi muy gàddaay keroog moom la ko suñ borom booleen ngir mu war a ànd ak moom nga xam ne euh, is huma fil gaari is yaqul li saahibihi laa taxsan inna la maana jooje moom ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoom ñaar la ko la ñoo nekkoon ca ca xunt woowee mu gàddaay dem Madina mm, atum juróom-benn ci gàddaay gi suñ borom jox ko ndigal lu jiitu lool lool sax yaakaar naa ne ñaari at rek la fa def suñ borom jox ko jox ko jox ko ndigalul nag eh, mu mu war a jàkkaarloo ak noonam yooyu te loolu li ko waral mooy eh, waa Makka dafa nañ am. am am am am am am am rihla boo xam ne dañ naan dem Cham wala ci yeneen dëkk yi di fa di fa jënd ay marchandises indi ko ndax boobu waa arab yi moom ñoom commerce rek lañ mos a xam fekk na métti dañ leen def leen lu neñ nangu leen seen alal rey nañ leen tumarankeel nañ leen bi yonent bi saa salaam ma yëgee loolu te ndigaloon suñu borom jox ko ndigal ak nekk ne ko nag na nga dem dajak ñoom dig naa la ñaar dig naa la ci ñoom nga nga xeex ñoom gañe leen wala wala wala njëg mi nga nga jël ko saa salaam jokk jokk wax waxtaan ci ak saxaaba yi yëpp ñoom nag saxaaba yi moom euh, ñoom dañoo joxewoon seen bopp te muy dëgg ci ñoom mm-hmm. dañoo jébbalu jox yàlla seen bopp ci yonent bi sa alayhi wasallam jox ko seen alal jox ko seen deret jox ko seen seen seen dund jox ko seen lépp ndigal rek la ñuy jógee la déglu ju jógee ci yonent bi sallallahu bu nee nañ xeexi ñu xeexi bu nee nan nan joxe suñu alal ñu joxe ko lu mu leen digal loolu loolu la ñuy def sallallahu alayhi wasallam daal di jóg daje ji ak euh, noonam noonam yooyu mhm. loolu mi ngi am ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor euh, mu doon xare boo xam ne nag bu métti la ndax xare bu métti bokk na ci weeru lu tombeek weeru koor rek mhm. ku ne xam na ne weeru koor moom même boo toogee defoo dara sax maanaam dafa dafa métti waaw loolu moom ñëpp xam nañ ko mhm. waaye nag nga dellu takkat xare ci bëccëgu weeru koor ak ku ku ku xam réewi Hijaz yooyu ak na mu jafeeg na mu tàngee nga xare nga takk xare ñaar nekk ci nga xiif mar ba noppi nekk ci ak njàqare nga xam ne bu doon ne ay niti kese ci njàqare la nekk waaye nag ñoom nekk nekkuñ ci njàqare ndax Sëñ Tuubaa mu wax tanaazaul mawta ma'an nga xam ne ñoom de maanaam bu daan dem ci xare ak dee dañ koy xaccoo kenn ku ne danaan man maa war a dee tey ku ci ñibbi si te faatuwoo sax da ngay am loolu naqari ndax ñoom gëm nañ ne li leen yontu bi saa salaam wax mooy xare bii lii ngeen di def ci yoonu yàlla képp ku ci ku ci faatu maanaam sa sa bakkan moo dox sa diggante ak aljanna sa bakkan moo dox sa diggante ak aljanna lii ma leen woo. bu sa mbokk mbokk desee sax yow da nga koy farñee. ah man bu sa mbokk desee ca xare ba sax yow da nga koy farñee da nga ndax xam nga ne moom. Mhm. maanaam aljanna lay dekke ji. moo tax dawuñu dellu ginnaaw daawuñu daawuñu daaw daawuñu daawuñu dellu ginnaaw daawuñu rëcc daawuñu tiit ci dara. Mhm. ñun seen lim néew lool. Mhm. ndax fukki ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñett muy trois cent treize personnes yoo xam ne lu néew lañ yor ci ci ay ngànnaay ci ay fas lu néew la ay nga ay mbubbi koŋ lu néew la ndax booba lislaam amagul doole jullit yi amaguñ doole dañoo jógee Màkka ñëw Madina nekk fi ay tumaranke dëkk bi ñëw rek ay gan lañ fi ma euh, am na nag ñoo xam ne tum nañu ànd ak ñoom waaye taxul ñu ñu am doole ji ñu war a am waaye ñu dem tase tase ji ak nim boo xam ne bu bari la muy waa Màkka ak Xuraysin yépp yéeféeri Quraysh nga xam ne booba mën nañu junne yi nit yu teg yor nga nay yu doy doy doy ci ay jaasi ak ay xeej ak ay gawar ak ay mbubbi konk jumtuwaayu xare yëpp ñu yor ko waaye ñu liwatoog ñu dajeek ñoom ci bis bi ci fukki fan ak juróom-ñaar ci xare boo xam ne ni daanaka euh, yàggul sax mm-hmm. waaye salaasalaama ak saxaaba yi ak seenu njàmbaar nga xam ne ay gaynde lañu won buñ wacce ci ëttu ci ci ci ci ci ci tolub xare ànd ak sallallahu alayhi wasallam ñu xex ak noni l'islam yoyu dàq leen bañu ñu wëlbatiku wone ginnaaw ñu ray rey ray ci ñom jàpp ñañ ja jàpp ñoom dellu si nga xamne bis bobu yonent bi saa salama bëgg gi mu bëggal gim gim gim xir gi mu xiir ci liko yàlla yoni ngir mu daj aduna ndax xamna ni moy tawfiq mom mo meuna muccel nit l'islam mo meuna muccel nit aduna ak al-akhirah sallallahu alayhi wa sallam am yéene yi mboolem ku nekk ci kaw suuf di noyyi rek nga tàbbi ci biir loolu bis boobu nag ak mbooloo mu néew ma ak doole ju néew ja ak ngànnaay yu néew ak yu yu ñu mel yépp waaye keroog dafa nekk ci biir xaris bi di ñaan di ñaan di ñaan di ñaan di ñaan suñu borom naan ko suñu borom de sa kuréel bu néew bii boo leen seetaanee ba ñu daaneel leen ci ci xare bii mooy xamal ne sa lislaam bi moom fay na di ko ñaan yàlla di wax ne dafa ñaan yàlla ba kaalam gi wadd ci suuf Seydina Abubakar moo ko jël daal di teg ko ci ay mbagam ne ko doy na sa borom nangul na la Euh, loolu kon euh, mooy mooy mooy mooy bis bi. ci ci ci ci tënk rek. loolu daal mooy xare bi njëkk ci ci ci lislaam tey it ci la lislaam taxawee ca la commencé di di am ay expérience di di ñu di ko bàyyi xel nag ndax Quraysh ak ni ñu toll ak arab yi waa Makka ni ñu toll. lim bu néew bi affronté leen def leen nii ñu leen def ci lañ leen commencé bàyyi xel lislaam commencé tasaaroo ci kooxi àdduna bi yëpp. mu doon mu doon lu am solo mu doon xare boo xamante ni metti na waaye lislaam am na ndam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa la mu ñaan boroomam ba Aboubacar di ko wax ne suñu borom nangu na sa ñaan yàlla fay na ko ko ci biir ak njabootam waaye fay na ko ci biir liggéey bu rëy bi nga xamante ni liggéeyal nañ ko lislaam noonu ko sëriñ bi waxee aya haadimal muxtaar laa tanta sax bawoo fa man yanhu fal mat wa mat ñoom kat seen kenn mënut a tudd yonent bi sallallahu alayhi wa te tuddoo jàmbaar gi nga xamante ni ñoom kat daroon nañ ko ngir ànd ak moom liggéey bu sell bi yéefar yi bari lool toll ci ay junneeg nangam am am am doole am am am arme am ay mbubu koŋ ñu toll ci juróom benn téeméer am doole lool waaye yàlla moom mi ngi ànd ak wayu muñ yi te du fàtte mukk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ni mooy jàmm te mooy imaamul mursalin waaye mu doon lu am solo oustaz ndax dafa mel ni sëriñ bi it wax na lu bari ci saxaaba yi nga xamante ni ñoo àndoon na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak diggante sëriñ Touba ak saxaaba yi. waaw bokk na ci bokk bokk raswatu badrin boobu. sëñ Touba moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko ñor saxaaba yi ñor ko lislaam ñor ko mu am ci ñoom cofeel goo xam ne kenn xamul fu mu tàmbalee ak fu mu nu mu yem. badar boobu Sëñ Tuubaa da ci am wàll lool mm-hmm. ndax da ca da ca def xasida goo xam ne da ko tuddee nazmu asmaa u ahli badrin nga xam ne téem ñett téeméeri nit ak fukk ak ñett yooyee nga xam ne ñoo xare woon badar kenn ku nekk sa tur Sëñ Tuubaa indi na ko ca xasida gi man maa ngi jàng fulku fi fi mu ne nii tembe tembe tembe maa ngi ci xasida googu mm-hmm. badar lay jàng nii jeexagul sax waaye ñett téeméer ak ak fukk ak ñett yi yi teewoon xare badar kenn ku ne Sëñ Tuubaa tudd na la ci biir ñaanal la yàlla ngërëmul yàlla fàggu ci lim ciy fàggu loolu lépp nag wax nga léegi ab bayit boo xam ne Sëñ Tuubaa dafa wax ne yow miy tagg yonent bi saa salama yaa xaadimal muxtaari laa tansa saxbahu fa man yansaxum fal madxu madxul muxatau yow yow miy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bul fàtte saxaabaam yi képp ku tagg sallallahu alayhi wasallam te bàyyi saxaaba yi sa sa juum nga si saw tagg daal ne Abu Bakrin as-Siddiq ذو صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأه أبو حفص الفاروق شرواه نادر بعيتز الدين المصطفى إذ سأزه في صحب من ضاه من عفان ذا الحياة له النور ثم النور نعم المبوئ أبو السبطي المختار وهو ابن عمه علي على فختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خدمه محبا لكم في الله والله يكلو كوي كوي واخ سي صحابه يي بو جيلي خلفاء الراشدون ني نيو بريزونتي صحابه ييب واي بولن تودي نيوم نين بولن تودي لي سي ديس داكوي داكوي سبختال لك نيب تابي سي بير موي اصحاب رسول الله اني خدمه محبا لكم في الله بغنا لين لول سي يالا يوي نيوي ريفيرونس سيرين بي نيوي ريفيرونس Eh, mën naa jàpp ne mboolem fi sëriñ bi jaar ak li mu daj lépp bëgg bokk ci ñoom moo ko moo ko yóbbee bëgg am seen daraja moo ko yóbbee ndax sëñ Tuubaa dafa wax ne fa nit yàlla yépp di yegg ci diggante yàlla ak yontu bi simmeeku mooy mooy mooy yegg fañ fañ fañ fañ bëggoon a yegg ñu yegg fa ba pare yegg yegg ba ferenkalaayu moom nee na foofu la foofu la yegg soog a takk ak deram di liggéeyal yonent bi sa salaam te mooy Sëñ Tuubaa ku ne xam na ne bëgg gi mu bëggoon yonent bi saa salaam loolu dafa jéggi dayoo kenn mësul xam cofeel gu toll noonu euh, ndax mu wax ne te te ak bëgg dafa rëy lépp ci àdduna ci ak bëgg ci ak bëgg lay taxawee lépp ci àdduna ci ak bëgg rek la nekk ci zaahir ak ci baatin lu nit di def yegg ci fu mu ci moom a yegg rek ak bëgg ca nekk moo tax sëñ Tuubaa wax ne alxubbu xayru maali shaxsin wahiba walaw ka misla walaw ka mil i misla ardin zahaba nee na lépp lu ñuy may nit maanaam ak ak bëgg moo cëpp doole donte suuf si yëpp dañ la ko jaral wurus ak ak ak ak xaalis maanaam loolu ak bëgg mu moo moo ëpp doole loolu daal di ne man man nag utiitu xubbal Mustafa wa aktafi bi zaaka man yuta kafaa fan yaktafi ba ma bi mu bëggeel tolloo noonu nag man nag sama borom bëgg yonent bi saa sallam la ma jagleel mu bëgg ko ba dootul nelawati dootul lekkati dootul dalati fu mu toll mi ngi joobe sallallahu alayhi wasallam mbooleem boxoor yi war na leen dawale na leen nu ne jëmale ko ci sallallahu alayhi ak ci lislaam ak ci saxaaba mm-hmm. ba yonent bi saa dikkal ko jox ko ndigalul mu mu mu sàqi aw yoon yare yi ci yitte nga xam ne nii am na lu mu fi fekkoon nekk na ci ndax loole la fekk ay waajuram moom lañ mos a xam ca ay maamam yu njëkk commencé ko ci ci sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi mu fi jogee ba léegi sëñ Tuubaa ñi mu bokk ñépp taxawul islaam ak jàngale ko ci lañ mos a bokk sëriñ bi jaar ci loole jàng li mu war a jàng jàngale ci kanam waa juróom ku ne Mamour Anta Sali ku ne xam ne ne jàngalekat doon boo xam ne ci mm-hmm. sëriñ daara yu gënoon a mag ci réew mi di boroomi xam-xam ci la bokk ndax yeggoon na ci daraja yi nekk xaada yi te loolu bu ci nit yeggaan mooy koo xam ne ni haut niveau la nekk ci xam rawatina xam-xamu diini waajuram woowu sëñ wàcc na ci jàng jàngale ci kanam sëñ Tuubaa ndax aw ko aw sëñ Tuubaa aw aw ci li ci gën a yéeme mooy Mamour Anta Sali jàngale na sax téere sëñ tubaa ci daaraam waaye fekk na boobu lépp moom am na lu muy waaj am na lu suñu borom def ci moom mi ngi ci moom naka jekk waaye mi ngi raam rek jëm ci ndax Sëñ Tuubaa dafa nekkul ci bi mu nekkee ci keppaaru waajuram mosul feeñal dara diiru Maamoor Anta Sali lu am na lu ma waxante ak moom xam naa ne léegi léegi léegi mu yegg si te fekk na boobu mooy muy mooy bi ñu gisee yontu bi saa salaam fekk na daan na ñaan suñ borom may ko mu gisee yoon bi ñaan na ko ba wax ne suñu borom donte damay giseen dama koy gis benn yoon rek mu dem doy na ma waaye ci ci ci ci ci ci ci lextikaafam googu ci la sa alayhi wasallam jékkee-jékki nee na miir bi jékkee-jékki leer nañ sallallahu alayhi wasallam daal di feeñ ci kanamam ànd ak saxaaba yi waaye waraa xijaabin xafif ni ko Cheikh Amadou Bachir waxee ci ginnaaw ak kiiraay goo xam ne nii mi ngi koy séen rek waaye mënul yegg ci moom mu waxanteeg moom Sëñ Tuubaa ne ko yontu bi laaj ko lu mu bëgg mu ne ko ñooñu nga àndal laa bëgg a bokk ci ñoom te mooy ñii ñu doon waxtaanee muy muy muy muy muy ahlu badrin ak saxaabaam yooyu yonent bi saa salaam ma xamal ko ne loolu day faat na ndax li ko doon maye mooy tuur deret wàcc ci tooli xare yi jihaad moo ko moo ko doon maye te loolu faat na wax na ko sax ne yow xam naa cofeel gi nga am ci man waaye ma am na lu ma la mën a sàkkul sa borom ma xam xutbaaniya kenn du ko am te amoo ñeent fukki at te yow sa ñeent fukki at manqué ne ñetti weer waaye mën naa laa pérédel ci suñu borom mu mu mu ajee la yëgee la ci ci maqaam suñ tubaab ne ko waaw loolu de baax na loolu waaye taxumaa jóg li ma tax a jóg mooy li ma bëgg mooy bokk foofu nga ànd ñooñu ànd ak yow dara la ci laa bëgg bokk ndax cofeel gi mu am ci yontu bi saa salaama léegi doon ñaan gis ko waaye bi ñu ko gisee gis ko doyul dafa bëgg dëkk ak moom fu mu nekk mu nekk fa kon li nga doon wax ne diggante yontu bi salaama ak saxaaba yi boo demee ci asma asma ahlu badrin boobu man damay wax ne am na saxaaba yoo xam ne rafet naa njortu ne bis bañ daanoo ci toori xare yooyu ba bi leen Sëñ Tuubaa di tuddaat fii kenn tudd leen wallaahi waaw néew néew na nga dem téere wallaahi wal kitaab fekk fa ñun limal la turu saxaaba yi waaw rawatina mm. rawatina tina ñooñu mm. di ci dégg tur yoo xam ne bu doon jàng téere yëpp doo ko doo ko gis mm. waaye laaxar wax mm-hmm. ndax sëñ Tuubaa mooy xaadimu rasulillah doon doon liggéey bi yonent bi saa salaam wax nañ ne asmaa ahlu badrin bi mu koy woy saxaaba mu saxaaba yooyu daan woon saxaaba yooyu xare woon badar di ñett téeméeri ak fukk ak ñett kenn ku ne yaay ñëw naan ko man maay diw doomi diw moo tax sëñ Tuubaa ñoom ñëpp diw doomi diw la la la la la ca la ca wax te dafay mel ni dem na ba taxaw ñoom na rafi kitaabillahi wal mustafa nabi léegi nag ci ci ci ci ci at moomu bi mu génnee bi bi bi mu waxante ak yonent bi saa salaam loolu yonent bi nag ne ko nag lii nag bu ñu demee ba xam ak dogoom ci ci lim bëgg bëgg passif ak bëgg dara way ci Sëñ Tuubaa doy na ci royuwaay ndax ginnaaw junni at yu teg la ñëw ginnaaw sallallahu alayhi wasallam ak saxaaba yi bëgg bokk ci lim booba sallallahu alayhi wasallam daal di xamal ko ne ko lii nga bëgg de du yow yaa ko mos a bëgg nitu yàlla toll na fii ma fii fii mu fii nga toll ma feeñu ko ànd ak sama ñii mu bëgg lii nga bëgg waaye lii suñu borom da koy jaay teg na ci loo xam ne ci ay nattu ku ko jéggi rek bokk ci waaye jéggi ko ndax ñaar téeméeri nattu la ak juróom-ñett fukk ak juróom te benn bu ci nekk nattu ab yonent la faagagal na bakkan te ku ko suñ borom teg waxuma la bis boo ne i hmm. rek dinga nga alaku alak képp ku ànd ak yow te yow damaa xam sa cofeel ci man te bëggul bëggaluma la lool suñ tubaa ne ko ruuxa gi de moom moom mu waaye ngor gu ko gu ngor ak fit ak jom ju ko yeggale moom am naa ko bu ma sama borom téyelee ruuxa gi rek ma ma ma yegg ca yonte bi ne ko loolu moom su suñ borom mooy moo yor moo yor ruuxa foofu la wàqanteeg moom nag ñu sañee suñ tubaa ba mu génnee ci leenti kaaf googee la wax waye yonent bi sa dako wax nako il faut que nga génn sa dëkk bi muy Touba faw nga génn sa dëkk bi ndax aw ay mënu la fekk ci dëkk bi dëkk bi bing koy bing koy bing koy bing koy sanc dang ko ar ci ñaan te ñaan gën ci ñaanoon sun borom nangu nako bing koy bing ngay ar dëkk bi da nga wax ne ci ñaan ne wajal harimana hariman amina wa kun bi hifdhi li wa kun bi xifdihi kafiran damina na nga ñaan sun borom ne ko defal ma defal ma sama xurum bi muy urum bu wolu nag ma wattul nag ma warlul ak wattu moo tax dara lu lay métti mun la fekk ci dëkk bi wax nañu tamit da ko caa tegal ñaar ne ko itam am nga sa nijaay yoo xam ne suñu borom ruus na ko lool te lim lay lim lay bëgg a teg mun la ko teg te kooku dund foofu mu jógee fi muy sëñ Bousso bi nga xam ne moog soxna Bousso ñoo bokk lépp sëñ tubaab bi mu génnee ci leerti kaaf googu gisee na ak sëñ Mbàkke Bousso waxtaan ci ak moom ne ko nag damay damay damay damay dem Mbàkke Baari Jolof yow laa fiy bàyyi képp ku ñëw na yem ci yow lu mu joxee na la ko jox su fekkee ku bëgg a yegg ku bëgg ma fekk si fee nag ma bind su ma xoolee mbiram mu war a ñëw mu soog a ñëw mu laaj ko sax ndax waxtaan nga ci ak euh, sa nijaay muy sëñ Bousso bi nga xam ne mooy waajuru sëñ bu Bousso sëñ bi ne ko waxtaanu ko ma ci moom waaye dinañ ci waxtaan waaye booba itam sëñ bi xam na sëñ sëñ Bousso bi coxeel gi mu am ci moom xam na ne bu ko ci tàggoo itam ma moom du ci ànd te sëriñ bi sëñ Mbàkke Bousso nee na booba dogoom ci lii mu jëm li ci gën a sedd mooy ak bakkan bu wadd moo ci gën a woyof mooy himmatul rijaalullahi yi nga xam ne buñ xasaat jëm ci suñu borom dara mënta dox seen diggante ak loolu boobu loolu dugg na ko sëriñ bi juróomi fan ciw koor ci ci ci ci korite ci jay sëchin euh, sëriñ bi laxasee foofu jëm Mbàkke Baari Jolof jay sëchin googee ba mu demee Mbàkke Baari Jolof Euh, lu jiitu muy dem muy dem nag waxtaan na ci ak nijaayam mu xamal ko ne la ci sëriñ bi doon xalaat muy bañ a dem jiit moom la mu ne mu xamal ko ne ko foofu nga jëm jëm de muy jolof réewum buur la ay buur a fa nekk ak ay dag boo fa demee dañu dañ lay iñaane loolu lépp mi ngi koy wax ñooñu seen jikko ngir bëgg ko yebbi rek waaw ñeewantu ko waaye mu daal di dem waaye ba mu demee itam loolee nijaay waxoon loolu dafa daal di tàbbi ndax ndax Sëriñ Tuubaa moom suñu borom da ko da ko tàggatal am mbooloo bu yàgg ndax Cheikh Amadou Bachir nee na sëriñ bi danaan daw mbooloo mi ba amoon na yenee sax génn réew mi dem fa ko kenn xamewul toog fa di jàmm yàlla waaye fu mu mën a nekk rek mbooloo mi daf ko ba mu demee ba xam ne amatul menn pexe ci ñoom nga xam ne bu tegoon asam sel isel dem asamaan ñu fekk ko fa bu gasoon pax dugg ci suuf si ñu fekk ko fa mu taxaw nag pour orienter leen ngir ñu jariñ loolu loolay pexe mu daal di fa jógee dem Mbàkke Baari Jolof shawal def fa zil qa'da zil xijja muy muy muy muy muy korite ak ak diggu tabaski ak tabaski ak muharram muy tamxaret ca muharram ba ci la sëñ bu soobee wàcc ci liggéey sëñ tubaa ñëw tubaa jaale si ko delluwaat muharram dee safar lay xew commencé xew fukki fan ak juróom-ñett sëriñ bi daal di soobu ci liggéeyam boobu nasma asma asma waxul badrin bii sëñ tubaa mi ngi ko commencé ci yoon wi keroog ba mu yendoo jeewal bam joge jewal ci samedi la lolou samedi la samedi. la yendu jewal ndax de nga mune ne xarajtu yow ma sabti. samina ashar li khidmati al lmuxtaari fi sahri shafar cha cha cha cha ca jeewal jooje foofee asma badar wa badar yi nak seigne touba damay wax ne suñ borom lépp lu mu jox ab jamam da koy nattu ba xam ndax pasifam yegg na ci am déet waye bo amé yene yene yene sóobu ca ba deugal rek. suñu borom dala koy tiimale bu ku la seen defe na yaa ko yenu mm-hmm. te fekk laalul sa bopp mm-hmm. Mm-hmm. dinañ ko xool ci Seydina Ibrahim ba mu naziree naziram boobu ngir bu amee doom rendi ko jaamu ko yàlla suñu borom ba ba mu ca tolloo suñu borom da ko caa nattu ba xam ndax dëgg la ci moom wala déet waaye dëggaloon na de dëggaloon na ndax nam mun a paakaam ba mu ñëw mu tër doomam takk bëti takk ay bëtam moom jël paaka bi dawal ci baatam ba mu ba ba yëg ne li muy dagg dagg na mu tekki ay bëtam gis doomam fee gis am xar mu tëdd suñu borom nattu na ko ba xam sëñ Tuubaa itam noonu keroog bi mu génnee Mbàkke Baari Jolof sóobu ji ci liggéey bi Cheikh Cheikh Lamine Diop ak dagaani yu dafa wax ne bis boobee la suñu borom woo woo woo ahlu badrin ne leen seen ngeen ko sama jaam bee xadiimu abdihi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma nga nee di dem ay noonam génnañ ko muy liggéeyal yontu bi fee muy dem feek muy dem ak muy dellu si aw weñ sax bu mu ko bu mu ko wokk foofu la Sëriñ Tuubaa ànd ak ñooñe moo tax ca jeewal fa la tubaab bi njëkk gisee waa Badar bañ jógee jeewal nag ci samedi booba ca dimanche mu yendu ju Louga Louga fa la commencé taarif asmaa ahli badri kon xam nga li nga nga ay mu wax dëppoo gi mu dëppoo dafa jéggi dayoo mhm. ndax bu fekkee dani euh, Cheikhul Xadim bi muy way asmaa u badirin ndax sànq wax naa ko taalibe gis nañu ba tàyyi daa gis na ku la ci tuddal diw waaye nga gis nag néew nit ki mën nañu la caa tuddal Ababacar tuddal la ca Omar tuddal la ca Ali ndax Ousmane ñëwul woon waaye téeméeri saxaaba ak fukk ak ñett néew ne téere booy dem nit ki nga fekk mu limal la ko noonu waaw léegi bu fekkee dani jamono bi mu génnee di soobu ci liggéeyam boobu njàngat biñ ci njëkk am mooy sëñ bi moo dem fekki nattu bi du nattu bee ko fekk si maanaam du caagee ni sëñ bi tubaab yi ñoo ko jàpp moo dem ni par force da ngeen may jàpp ndax lii ci sama mission la bokk faw ngeen fa fa maanaam faw ngeen teg ma loxo benn ñaareel ba mooy li mu nii xaswatu ñi teey woon xaswatu badiri ñooy ñëw naan ko mën a diw doomi diw te wëlbati ko yàlla ordonné saxaaba yooyu ni leen sama jàmbee ci seen biir la bokk wattul leen ma ko kon ñoo ko escorté juróom-ñaari at yépp kon da ngay dégluwaat ni kon ci jamono jooju muy bind waa lan moo tax tàmbaliwul xasida bi maanaam avant muy sóobu ci liggéey bi bu fekkee ne coofeel rek rek rek la mm-hmm. lu tax tàmbali wu ko avant yaakaar naa wax na ko ci asiru rafiq kitaabillahi wal mustafa nabi asaabu fi bari mm-hmm. maanaam loolu mooy wane ni maanaam dëppoo rek maanaam ci lu ma koy njàmbaa sax xam naa bala ngaa ñëw ci ci sëñ bi waaye dëppoo rek la ci ni ndigal loolu sax yàlla joxoon saxaaba yi ni leen wattul leen ma kooku foofu la profité nag mii leen teg saxaaba yi kenn ku ca nekk mu xam yaay kenn sa turu ndey sa turu baay ak ban rôle nga zéewoon ci xaswatu Badri. bismillah ci ndigalu yàlla. mu doon lu am solo. Mhm. Euh, ci li mu wax ne. mu ngi ànd ak mu ngi ànd ak ñoom. li ma bëgg a wax mooy Assir moo jiitu asmaaw ahlu badrin. Mhm. donte ni bokk yoon woo xamante ne si ko sëriñ bi bindee. waaw waaw waaw léegi da gis ne xam nga mi ngi amul yéene bokk ci ñoom. Mhm. waaye loola dafa wax ne dafa dem ba mujj wax ne. shahida lillahu bi anni wahidun من اهل بدر ما نحاني جاهل سون بروم سيرل نما من كين لا تي وا بدر لو ري لا نك ري لا ري لا بوكو تي درجه يي ني لم واو واو بو دوجن تي تيري لول موم لول موم كين دوكو دوكو خالي صاح واي سون بروم موم فاعل لما يشاء macha allah taala muy jëf lu sopp dañuy dem Brésil euh, du nga may ñu rek ci ci ci image yi nga dañ koy ci xare Badar ñu xoolaat saxaaba yooyu rek seen jàmbaarte ak liggéey bu rëy bi nga xamante def nañ ko ci daal ak mi moom ci yi Atenção! Direito! سجاع راه سيس الكفر يجزعون أسود متى يقصد لهم سوء تجرؤ يبخ جبان يبكي ويمان تجرؤ ayaa xaadimal muxtaar rulaa tan sa sax boo fa man yan sawum falmaat umatun muxattaam aboo bikirin siddiim خذ صدق والوفاء رفيق النبي الموس تفاخر أنبو أبو سن الفاروخ سروا نادر بيغتسدين الموس tafa isu sansom afisan bi man daam na afana salaya lo nooru summa nooru nihmal mubawion abo sibtayil muxtaari وهو ابن عمه علي على فقير نهم المجرد أصحاب رسول الله إني قديمه محبا لكم في الله wallahu yaklo amin ya rabbal alamin sil fadli wal minani abdan khadiman lo bil fardi wa sunnani wajatu السلوان والمنان المناني الخادم الله بالفرد وسنن وجعت كل لا سلفد لا إله إلا الله abdan xadiman lo bil fardi wa sunnani wajatu kulli la sil fadli wal minani abdan xadiman lo bil fardi wa sunnani ala ila ila la wajatu kulli la silbaan wal minani abdan xadiman la bilfardi wa sunnan amdi wa sukri li baaxin la ilaha illallah ala mujawaratil munji minal la ilaha illallah amdi wa sukri li baaxin لا شريك له لا مجاورة المنجي من الفتن حمدي وشكري لباخ لا شريك له على مجاورة المنجي من الفتن لا إله إلا الله حمدي وشكري لباخ لا شريك له لا مجاورة منجاة من الفتن هداني الله بالماء ولا إلا الله من خير سرق ولا قس ولا لا إله إلا الله هداني الله بالماء وأشكره من غير سرك ولا خس ولا كتن الحمد لله لا إله إلا الله بالعالمين لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين محمد من به lil bisira ak rawane alhamdulillah la ilaha illallah rabbil alamin ala muhammadin la ilaha illallah lil bisri ak rawane alhamdulillah alhamdulillah muhammadin la khairil bisri ak rawane محمد خير البسر أكرمنا سيدنا محمد نبي محمد خير البسر أكرمنا محمد سيدنا محمد الحمد لله

أبدا وتاب دينا سلي الخلبك سماني خير الخلق أبدا وتاب دينا سلي والخلبك سماني لخدم خاب قريب sarmadan amgadi bilqina an qore ajaban sanani sarmadan amgadi bilqina ila nabi quduma yurdi min khidam مسخاد لي جاني النبي واليقين قدوما ما يردي من خدام المصاد لي جالبا للنبي واليقين إلى جنابي يقول باخ مداني بلا مكور ولا زاني إلا جنابي يقدر باقٍ هداني بلا مكر وحسن نبي ناجيت جائلا بالماء ومان ما فوق المدافع والارماء مغتسني جئت جائلا جائلا بالماء وما من ما فوق المدافي والارماء مغتسني نبي سلمت من كل دور عمدان مالكي معدل لا انسى الهدران والأذاني سلمت comen golle golle ɗurinami dan malike nabi ana ilaya sari bi nabila kama bi jadli bil fardi wa sunnani بالماء سير كما كما جادل بالفرد بالفرد نبي أنا إلهي قريب النبي لا أما بي جادل بالفرد وسنة أنا بالماء سير بنبيلو كما بي يا دلي بالفرد نبي كما به يا دلي بالفرد وسناني كما بي يا دلي بالفرد وسناني نبي كما بي يا دلي بالفرد وسناني نبي جادل نبي وجات كل ياسا لا لا سوخن إلى الله وجات كل ياسا قرب من الله من الله قلا وهبا وسا سوخن إلى الله نبي allahu akbar mimma kuntu af'aluhu wala suqsa wala arju sila allahu akbar yàlla màgg na kuntu af'aluhu amul den dondo wala suqsa wala arju sila nabi allahu akbar mimma kuntu af'aluhu ولا سوى ولا أرجو سوى الله akbaru yàlla màgg na amul dendandoo wala su axsa wala arju si wala nabi sikri wa sukuri wa ridwani wa mahmadati bil qalbi wal jismi wal aqlami lillah wa sukuri wa ridwani ndeysaan bil qalbi waaw wal jismi والأخلاق لله نبي كل لربي في سر وفي علن ولست أسأل خيرنا في الله ورضواني بالقلب والبسم والأخلام لله ربي ربي الله أكبر الله أكبر akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar min haqdi ah. wa min amali wa min maqali fa kul itaab fillah الله أكبر من نقدي واو ومن أمل ومن مقالي فكل تاب في الله الله أكبر من نقدي ومن عملي ومن مقالي فكل تاب في الله تسليم باخنا لا المستاخي لله إني لعبد قديم سرد ديفك يا ربي وبالإتخ والإدلاخ تخريني ليكن بكن سرمدا وجعل مسيري يا سا جوف الفرا للورى مثل المحارين صرفت حاجي لمن يقضي جميع بكم وأتوصل بالممدوح في النون أهل البرايا على البرايا على البرايا على البرايا واقصاها وأكرم على البرايا وأقصاها وأكرم يوم على البرايا على البرايا أهل البرايا أهل البرايا وأقصاها وأكرم يوم هند الذي jaadali bil miimi wan nooni liman kazaani wa rawaani wa atamani yaraati saakiran kallawhi wan nooni hubbi wa wuddi wa ridwaani wa mahmadati liman abaani bima qad faaqa masnooni يا رب سل بتسليم بلا عدد على بصير نصير منك ممنون نبيك المصطفى بصالحين معا وكن بكن لي في بعد ومكنون نبيك المصطفى بصالحين معا وكن بكن في باد ومكنون لغم جيواي لغم جيواي جكو يونن للامبوون mëneefu la lim gënee yëg boroomam ñun fu ni raaseeti waaju mel ni mii mbër woyof na ca kaw te diis na ca biir boroomam nun fu nuy raaseeti waajoo xam ne fu mu teew ku wopp mu faj ku dee mu yëgal boroomam ñun fu nuy raaseeti kook bu jogaan du geesoow di romb dërëm ya jëm ca mbirum boroomam ñun fu nuy raaseeti kuy gis ahlu badirin di ànd ñoom tey déeyaleeg boroomam ñun fu nii raaseeti waajoo xam ne buy way araf wa mu def aras da ca bég boroomam ku bañ bi xutbu ku bañ bi xutbu bay raasi moroomam du gis bu ni mel ci ji jamonoy boroomam ndax gisee fu ko woon ca gaaya wayoon ca baawoon ca xarnu bii nuy jubit du ci ñëw moroomam ku weddi ba tax nga bëgg ni may moroomam na def la mu def te wax la mu wax boroomam te dox la mu dox ci réewi Gabon wa Congo jaay noonam ba dellu si te fekk fi moroomam te seexal ku mel ne seexi abdourahman loo ku juddu ci mbàkke moom mi moo la xamal boroomam ku bëgg di mbër bàmbaa ngi nii seetal ku mel nii moom mooy donoy xuddubum boroomam yàlla yàlla nangu lépp ah waaw tabaarakallaahu xam nga eh, sànq ni nga ko waxee rek tey ñi ñu dalal ñi daanaka layatu xadr gi moom dafa waroon a eh, daanaka dem ba fajar tey xol sedd na xam naa it tabaarakallaahu tey suñu caatu kër gi mm-hmm. eh, xam naa boobaay léegi mu ngi bëgg maanaam mu ngi bëgg daanu mm-hmm. ndax tey li ñu fi déggale nag ndax dama koy faral di wax lii mooy jàngale mm-hmm. waaw lii mooy jàngale gis nga nit ki léeg-léeg dina ñëw indi loo xamante ni teg gi mu koy teg yow da nga naan di tekk ni mhm. xeraw lu di ko dégg ci ci jànkat yi nag ak ak ci ak ci waxtaankat yi mhm. waaw ndax mbir la moo xamante ni lu mu wax wala lu ñu wax mën nga caa teg sa baaram mhm. boo dee boroom xel mën nga koo xalaat tabaarakallaahu kon daal maanaam day wane rek te nag daf mel dugguñu ci waxtaan bi dëgg-dëgg. ndax daal kii da doon maanaam dañ doon kii nii rek. <laughs> ak ci waa dañ doon nuyoo rek. waaw dañ doon nuyoo ak ci waa Badar gi rek. xaw ma nag ni ñu ko temps bi di waxee. Mm-hmm. waaye wax dëgg nag maanaam moom duggagul nag ci jëmmi jimmi nag. dëgg-dëgg nag njàngale maanaam sëriñ bi njàngale macha allah ndax ñu mën cee am royo alaj pap mm-hmm, mm-hmm. xam naa pour bañ a këfin daal mm-hmm. eh, eh, xol sedd na daal macha allah taala xol sedd na lool ndax eh, njàngi ak njàngin wi macha allah koo gis day xam ni borom yitte la yàlla na bu baax a baax soxna aji Marlène mi la ko jàpp ci liggéey bi la ñoo koy ñaanal ci barke Cheikh Mouhamadou Fadal yàlla na yàlla dëggal taxawaayam ak waajuram boobu nga xam ni mooy soxna Fatou Seen Fàllu moom soxna maam Marème yàlla na yàlla sàmm ko te liggéey bu rëy bi nga sëriñ bi fii yal yàlla gën koo dolli tawfiq ci daraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di ziar baax soxna ummi Touba moom Cheikh Mouhamadou Fadal di ko ñaanal suñu borom dolli ko ay ay teranga lool ci barke sëriñ Touba euh, soxna day faatu daa mel ni yow moom fi mu toll ni sori nga waaw sëñ Pape man de comme ni ñu koy waxee rek lu fees ci xol day daal di feeñ ci kanam mm-hmm. euh, yaakaar naa ni fi ñu toog waxoon naa ko ci sama njëlbeenu wax mm-hmm. euh, taalibe laa fi doon damay delluwaat ba ci suuf rootuwaat mhm. te gëm naa ne duma ko réccu ndax li ma fi jot a dégg macha allah euh, mhm. ndax euh, caméra yi bu xasee ba tàkk mhm. ñu daal di dem ci saalu nit ñi toog rek euh, ñi ñuy waxal ñett lay doon day nekk ki nga xamante ne li ngay wax xamu ci dara day déglu pour jàng ak ki nga xamante ne yéen a tolloo niveau li ngay wax da koy da koy kontaane parce que danaan kii li muy wax dama koo xam da koy yëg bu baax a baax ak ki nga xamante ne dalaa raw ci xam-xam kooku day kontaan ndax danaan tey jii ñi fi toog euh, yoon ba ma nekkoon ñoom ñi ngi ci ba tax li ma xam ñu xam ci loo xamante ne macha allah bu ñu toogee ba wax ko sama xol sedd euh, man fi ma fi ma kontaanee moom mooy li day wone ne génération bu bees bi dugg ci néegu sëy doom juñ ci am war nañ koo mën a xamal diineem doom juñ ci am war nañ ko mën a jàpp ci loxoom ba ci kër sëriñ yi teg leen fa ñu jàng seen diine ndaxte jàngum nasaraan si baax na lool macha allah kenn waranteetu ko waaye yoon gu baax gi dëgg moo nekk nii ndax bu ñuy wax wala ñuy wax bu ñuy wax wala ñuy way macha allah da nga ko yëg ci sa xol du nekk loo xamante ne looy tricher la wala looy forcer da nga ko yëg par force day ñëw directement ci sa xol parce que ñoom ci seen xol lay jógee mhm. te macha allah ñoom ñu fi teew ñëpp ay mag lañ mais da gis ci ñoom yar ndax du du xale rek moo war a yaru dañuy gis ci ñoom yar macha allah ci seen kanam ci seen i waxin Euh, macha allah sëñ Pape dama kontaan lool lool euh, suñu papa ji fi mu daanee daaneelee amoon naa fa question mhm. mais xam naa dama lay bàyyi nga continuer rek ba ci kanam boo ma ko mayee ma daal di ciy ñëw. ayca fi ma bëggoon na ñëw moom mooy bi muy wax ci li nga xamante ne moom moo di xare Badar mhm. mu mel ne coono moom moo fa amoon métit moom moo fa amoon waaye ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekkoon surmonté nañ ko ba yàlla suñu borom defal leen ci ndam mu dul fay ba faaw mhm. muy ndamu lislaam euh, ñun ñëpp tey jii loolu moom moo ñu siggil moom moo ñu sagal ba fu ñu toog di ko wax di ko ndamoo Euh, ma lay laaj ndax tey jii kon yoon la ñun ñi nga xamante ne ay jàmm yàlla dong lañ tey jii métit wala nattu ñëw dal ci suñu kaw ba tax ñu saalit euh, dañ ci gis ñoo xam ne eh, may neex yàlla daf maa fàtte ñu naan lan laa def yàlla ndax kon yoon la te ñoo ñu nga xamante ne ñoom ñoo ñu demoon représenté ji am courage ba tey mu egsi fi mu egsi ba ci maam borom Touba ndax gis nañ ne li nga fi wax ci moom yëpp ci ci courage la ko teg ci njàmbaarteem ci gëm ne mu yàgg ak mu metti euh, ci mu neex lay mujj ji moo tax tey jii mu am fi woy wudul fay ba faw fu ñu toog di ko waxtaanee xool sedd fa kon ndax yoon la euh, jaamu yàlla bi war a découragé ci àddunaam waaw loolu de moom euh, sëñ Moussa Ka nee na gaa yu baax yi waxtaane leen te fàttale fàttaliku leen te waxtaane leen dina tax seeni seeni gars yi roy leen li li li xew léegi nag li ko maanaam li ko waral dafa bari bokk na ci nit ki lu mu xamul daanaka du ko mën a bëgg njariñ la ca nekk it du ko mën a jariñoo bu baax te liy mbir tey mbir mooy ñun dañuy ay jullit waaye suñ diine moom daanaka daana daanaka xamuñ ci dara loolu moo moo waral njariñu lislaam yi ak jeexital yi duñ ko mën a jariñoo waaye lislaam moom courage la lislaam mooy diine jo maanaam li muy jàngal nit mooy doo mos a découragé ci sa àdduna toujours da ngay gëm ne dina baax fa àpp ba fa nga yeggagul waaye dina baax ndax da ngay ndax yàlla moom li kulli ajrin kitab lépp da ko appal lislaam li muy jàngale mooy yàlla lépp da ko appal looy loo looy wut mu jafe la rek app baa jotagul bis bu app ba jotee dina la yomb loolu encouragé la nit lislaam saxaaba yi nga doon wax circonstances yi ñu weesu ba taxawal diine mooy lislaam moom jom ji muy jàngal jit mooy fi mu ne fi mu ne ci ci ci lislaam daw ci xare dafa bokk ci bàkkaar yi gën a mag mm-hmm. daw ci xare mm-hmm. islaam nag nangu na istislaam mooy jàmmoo waaye nangul silm mooy yeew buum ci sa baat jébbale lislaam nangul loolu mm-hmm. waaw ñaari nit képp bu leen téeméeri nit waroon ñuy xeexal lislaam duñ daw mm-hmm. loolu jom lay jàngale ngor lay jàngale am fulla ak fayda lay jàngale mm-hmm. moo tax seen lim bu néew booba ñu ñu am bis bu toll nii taxaw ci taxawaay bii ba ginnaaw loola ci la ci la lislaam di dollee ko di dollee di dollee ko bi ñu leen jàngalee pas-pas mooy tawxiid jàngal leen li ñëw li tax ngeen ñëw ci kaw suuf mooy jëmmal baatu yàlla lii di sëñ Cheikh Amadou Muntaxa di wax ilaau kalimatullahi al uliya ilaau kalimatullahi al uliya mooy yëkkati baatub yàlla moo tax doomu aadama ñëw fii ci kaw suuf boo xamee loolu nag da nga xam ne loolu rek loolu taxawaay boobu rek nga fi war a am loolu tax saxaaba yi ginnaaw xare boobu ñu xarewaat xare boo xam ne moo gën a métti boobu sax ci ñoom muy xare Uhud xaswatu Uhud moo gën a metti ci ñoom xare Badar malgré ko sax ci lañ gënoon a bari waaye booba lañ leen def lépp waaye nag taxul ñu dellu ginnaaw benn bis bi ñëwee dañoo gën a takkuwaat jaajuwaat rek ba yeggale lislaam fu mu yegg yépp ba yeggalee ko fii ci sow jant ba tey jii ñun ñu ñu jotti ba yegg ci alquran ajam yi mooy ñi nga xam ne du ay arab yem ci ak arab yi nga xam ne bu ñu dajee ci ay concours sax musaabaxa yi ñi dul arab jël ko loolu loolu lépp njàmbaru saxaaba yi la ak seen taxawaay léegi nag loolu li ci jullit war a jàngee balaa mu ko ci jàngee day jàngat dundu saxaaba yi jàngat ja mën a jàng dundu euh, yonent bi saa salaam ay jikkoom ndax comme mooy référence bu mag bi moom la ñu suñ borom royloo laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llah wal yawmal axir yonent bi saa salaam dafa am suñu borom mooy kenn koo xam ne mooy far fardun jaamee fardun jamia moy yunus bi sallallahu alayhi wasallam mooy kenn ko xamne sun borom dafa dajale ci mom lépp ngir do aadama yi roy ko ba ci yoy zahiri fi ne boo naan man sama wajuri nekku ñu fi nga jàpp ne yow boo amul wajur rek da nga wara yafus yaafus tekki dara ci aduna yunus bi sallallahu alayhi wasallam sa roy way la bi mu ñak wajur mo la gëna nek xale te teewul turum mo gëna dess ci aduna moy ki gëna influence ci aduna sallallahu alayhi wasallam te dafa nek enfant bo xamne ni yaruwul ci kanam day ak ak baay ba ci yooyu zahir yi boo naan fi ne ba ci ñun ñi nga xam ne dañ naan soxna su soxna soo ne moom moo la mag tey loolu boo ci yëgoon am nga royu waay yonent bi saa salaam denc na soxna soo xam ne moo ko mag at yu bari boo naan soxna soo xam ne dafa ndaw kii moom du ma du ko jël yonent bi saa salaam denc na soxna soo xam ne nii bi nga koy may amul fukki at muy Sayyidatuna Aïcha bi fi yonent bi saa salaam di di di jógee dix-huit ans la am dix-huit ans nekk kan fuure boo xam ne nii ci borom xam-xam yi gën a mag ci lislaam la bokk yonent bi saa sallam daana joxañ nee ne deen saxaaba yi dee leen jëlee seen xajub diina deen ko jegeen ci soxna su xeesee muy sayyidatuna Aysa kon nag ñooñooñ pour ñu mën leen a boo euh, euh, boo gisee Sëñ sax njàmbaareem gi moom saxaaba yi rek lay fàttaliku usuudun alal aadaa yi kii jàng na ko léegi usuudun alal aadaa yi masaabihu fi duja wa kullun shujaawun sil sil kufri yajisaw loolu la leen taggee njàmbaar googee mu leen taggee nag moo tax moom njàmbaar googu la la la moo nekkoon ci moom bokk na ci eh, moom daan tegtal mag ñi saxaaba yi mag ñi daan ñi njëkk ànd ak Sëñ Tuubaa dund nañu ay jafe-jafe waaye danañ dund jafe-jafe ba di ko ñëw di ko wax sëñ bi Sëñ Tuubaa dafa mujj ne bu bu fi kenn ñëwati di ma wax benn jafe-jafe saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine te lañ dajoon dajagu leen ko Sëñ Tuubaa bi mu jógee Ndar ba ñëw Ndakaaru fii ba bañ de bañ dugal ko ci néegam bu xat boobu sallallahu alayhi wasallam feeñu na ko fa di ko ne ko ne ko nag ñi nga xam ne ñoom ca ca ñoom nga bëggoon a bokk lañ dajoon daje googu ko sama bàyyi tëx Hamsatu ca xare ba mu faatoo dañ koo dëbb ab xeej mu sar ci jimboo xam ba génn ci ginnaawam te foofu nga bëgg a bokk te loolu defaguñ la ko yow da ngaa joggi aw ràbb rek mu sar ci saw tànk. allahu akbar mu waat loolu. ba fi mu yegg yëpp mu yegg fa kon loolu moom. xam nga ni bu dee ci wàllu soxna it am nañu dëgër laay ndax su ma yooyu ku teel a faatu ci ci toolu xare la te jigéen la. waa jigéen ñi moom bu dee ci lislaam ak ci histoire ci lépp rek. moom dañ ci am wàlla ndax yonent bi saa salaam ma wax ne ki ko njëkk njëkk njëkk gëm jigéen la mooy sayyidatuna Xadiija mën nañu wax sax ne bi muy gëm yonent bi saa salaam sax fekk na yónnee guñ ko waaye moo ko njëkk bàyyi xel am lu muy jàngat ci moom di ko bàyyi xel. ba tax na mu jël ko ci biir liggéeyam liggéeyam bi mu ko jëlee mu di ko liggéeyal dafa am kum ko booyee nga xam ne kooku moom yonent bi sallallahu ci zahir ni yëgul ne kooku moom moom moo ko tax a jóg mu di ko topp di ko jàngatal ay jikko ba mu ci gisee lu ko doy lépp ba wax ko lim ci gis lépp yo sayyidatuna Xadiija dafa def yitte lépp ngir yonent bi sallallahu alayhi denc ko bi yonent bi sallallahu alayhi di jot risaala bi ndax yonent bi ndax sun boromam lépp lu muy def day am tamhid du jékkee-jékki rek def ci dara def dara ci nit ñaare li ëpp suñu borom du jékki-jékki rek tabbal dara ci nit mu bett mu bett nit ñi mm-hmm. lu muy def ci nit rek dina dina am wàccaay euh, bu Busayri ci Homziyam bi dafa wax ne yonent bi sadarama alif nuska mm-hmm. wal ibadata wal xalwa tiflan wa hakada nujabaa bu leen gis nii rek mu bi mu doonee yonent muy wéet ak jaamu yàlla ak def ay jëf déedéet miinoon na jaamu yàlla ak di di di di di di di di di lewetal ay gàtt jaamu yàlla ak wéetay wéetaay yooyu yëpp da ko doon def te fekk yàlla yónneegu ko ci biir wéetaay boobu sax la ko suñu borom tànnee ndax suñu borom lépp lu muy def ci nit du la fekk ci biir mbooloo mi de ngay jaxasoo fu nit ñi mbooloo mi dajee nga dajee fa di wax di détaillé la suñu borom di def ci yow du ko def ci du la suñu borom di def ci nit du ko def ci kooku kuy wéetal suñu borom jamono saa su ne ki leen di xettali day wuteek ñoom jikko moo tax saa salaam moom moom bu ko yàlla yónneegul fekk na daana jóg jël ñu dëbbal ko am muraake ak ay xeetu yu ñuy jëfandikoo mu dem xa ci ci ginnaaw màkk ci aw xunt dugg fa daan fa dugg xalwa di ko bi ko Seydina Jibril di di ñëwal foofu la ko njëkk a fekk bi mu ko bi mu ko bi mu ko fa njëkkee fekk njaqare la ñëwee njaqare ak tiitaan gu metti waaye fekk soxna su baax mu dalal ko mu xam mu ne mu ne ko man man de damaa wax ko lim gis tiit di parpari lox la mu ko njëkk dal la mooy mooy mooy yow de euh, doo koy jommi ndax li ci yow ci yërmande li ci yow ci dimbale nit li ci yow ci taxawu nit li ci yow ci jokk ak bokk li ci yow ci ak rafetal suñ borom du la toroxal mukk du jël lu ñaaw di ko teg sa si sa kaw mukk xaw ma lu mu mën doon de waaye du du du doon du lay lor salaam xam nga boo boo jàqee ca àll ba ñëw. wala nga tiitee fa ñëw fekk soxna su baax mu dalal la. incha allah moo tax yàlla wax li taskunu. li taskunu ilayha wallaahi. Mhm. soxna su baax soo su la fekk si. macha mhm. allah mu taxawu yonent bi saa salaam ci difi ci difficulté ci ci jamono yoo xam ne yu difficile la. Mhm. moo tax saa salaam moom borom borom borom ngor la gu rëy koo xam ne ku ko jam euh, kenn du ko jam naa ni moo tax naa Khadija diiru mu fi nekk sax saa salaam amut benn benn soxna. macha allah te bi mu fi jógee itam mu am soxna yi mu am daw dañ mukk di fàttale ko di ko fàttale ko lu kooku moom kooku moom mooy royuwaayu soxna soxna yépp ginnaaw loolu tamit soxna yi dañoo jaayante ci lislaam daan ànd ak góor ñi ca xare ya ñii ñii daanu ñu jël ñu jëleen faj di leen may ndox ñuy naan daw ñu xare soxna du du xare waaye ñooy nekk ci seen ginnaaw di leen yokk njàmbaar ku ci daanu ñoo ñoo ñëw jël la ñoo ñoo ñoo jox ndox boo war boo amee gaañu gaañu ñu ñu ñu ñu ñu def ca lañ cay def takk mm-hmm. boo mën mënee jogaat jogaat boo mënta jógu ñu yóbbu la fenn ànd ak góor ñu boo demee ci téere am na téere bu ñuy wax euh, rijaalu xawlu rasul mm-hmm. am na beneen téere bu ñu wax annisaa xawlu rasul ci saxaaba yi ci saxaabatu yi mm-hmm. kon nag ñoom kenn demul ñu des. wallaahi mu doon la am solo nga xamante ne ba tey ndëgër laay loolu. <laughs> dafay feeñaat ci ñoom sëñ Cheikh sëñ Akassa ma bàyyi la nga barkeelu ay bayit rek su ko defee ñu daal dugg nag ci diggante sëñ Touba ak euh, Laylatul Qadr ak ni nga xamante ne noonu la ko sëriñ bi sëriñ bi jàngale ak ni nga xamante ne noonu la ko noonu la ko tënkee bu bis boo xamante woor nañ ko rek mu daal di xam bis bi nga xamante ci lañu war a jàpp Laylatul Qadr jasaaka jasaa aw laa bi annaka hindi suri dan abadan wasaaka rizbuka fi dunyaa fi dunyaa wa uxraaka fadun xalaa sidqi wa ixlaasi mujtahidan fi sirri wal jahri kaytan maa kaytan maa masaayaaka kaytan maa masaayaaka kaytan maa مساياك كيتن ما مساياك كيتن ما مساياك كيتن ما مساياك كيتن ما كيتن ما مساياك كيتن ما مساياك سن إلهي بالمناجات وابدا احنا يدينا دلالة يا علماء

وقولا قصيدتي فاخت قصائد الكرام ولدت خود أبدا خير المرام هديتي هديتي محجلة كل ملك كان مناسحا وانصاح ملك ما توجه نزار الله لب لا إله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وهلمك ما لم تكن تحلم وهلمك ما لم تكن تحلم وصل للحق من الحق المبين لخاد ما بان وما ليس يبين حلمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلخي لم ينقصاتي جالب النيران أو جالب الحارين في الخسران لم ينقني ضررنا بالدنيا واغتسني الباقي بخير سنة ملكني ما لم يقبي عني وخاتلي بقاء بالمن كرامتي كتابه من رفخني كرامتي كتابه من رفقني بي إلى الجنان مصنفحا ما ما مماتا خدنا نفوسا ولي سوايا سخو فيسا ما ما مماتا خدنا نفوسا ولي سوايا سخو فيسا إلى سوا إلى سوا نقوي تعال الموت نحن نفوسا كلها بفوتي لم تدخلني مخدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كبدوني بدل من موت نسي من آني جدل ترسي عن الموت بقاء لاح ترسي عن الموت بقاء لاح أبخاني الله لوجه الله كفاني الباخي مما تسر مدى kafaani albaaxi almamaata sarmadaa kafaani albaaxi almamaata almamaata sarmadaa kafaani albaaxi kafaani albaaxi mamaata sarmadaa obi baxaaya yusur raxmadaa nafaxani walam yadurni wala yadurni kulli alayhi awala tursi anil amraadi والممات بخواتم من السماءات مني بخوته إلا يا البيت رافعا بي المرد لا سكا في كوني بالأمين فيه بالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جاءني تبان وهب لنا مكارم الأخلاق وهب لنا مكارم الأخلاق وهب لنا مكارم الأخلاق وهب لنا مكارم الأخلاق وهب لنا مكارم الأخلاق ما تعب بال بلا سقاق واجعل سخرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يهن للسخير واجعل قلوبنا هل توادد بلا تناعتويل ولا تخاصد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباخد ولا تنافر خطا نسيرة مسلمين خاسحين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وافنا بعافية تكونوا في الدارين خير عافية تكونوا في الدارين في الدارين خير عافي وخمي وخط وكفنا حن مسلمة ونجي كل مسلم ومسلمة ولنا يا ربنا ولنا يا ربنا ولنا يا ربنا ولنا يا ربنا ولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وخدا يوم القيام بجاي خير من سفى الأمراض وهب المرحوب والأغراض محمد تبي طبيبنا الأمام المبري الأمراض والأسقام وسلم عليه ثم سلم وآله ما سياب الكرماء مبلغ الفزول بالدعاء وفي المريد بسفاء وللناس أيضا وللناس أيضا سأل الله si ba am nga fay dan yaa mu ni ruumu dafa kuli daayi falaatu faariq mat la ba wa duma layi fi masaa'i wa sabaax wa axlisan tëra sifaan wa falaax bisi rabbina wa jaaxil musafaa salaax alayhi rabbuna kama sabaa mboole murid di déglu leen déglu leen ma yee leen ci mbiri bu leen nelaw yeen li may nelaw nelaw du teema yeete li may gëlëm-gëlëm du teema waate amaana kuy nelaw nelaw lu ngi reer waaye bu defee yitte dootul yàddaaru bu leen di fàtte yàlla ak dogal yaa ak atta yaa sañ-sañ ya ak mbugal yaa kattan gu ànd ak coo ci lay jëf loo gis mu xew mindeef mindeef mënul suñu lëf dogal bu am day la kolaaki xew-xew ngir kuñ gisul wër naa la koaki sew-sew te yàlla doo ko gis ba xam la muy def loo xajji-xajji bur bi làq la yëf ka gën a xëjey ka gën a xëjey gën a gis na toom yaa ka gën a jege pay bàyyi gën a gis tiisam yaa te yàlla kat xarit ba lay musi baal ngir dara jaal ko baati muy ku muy la yàlla jox xarit ba ci maxaama te mënu koo jëf na tu lañ koy xayma te bala laa waalu ba jógle mbir yaa nga mu ñenam ba aw ca mbar yaa la nabluwannakum li saabiri asiba naasu li kaasibina moom lañ waxoon yoneen ya ak labbu daal ak xutbu yaa والياف لو تادي وخالح خد لو يا مكي ردي حنحو لا حو المكي وفي القديس إن أحب الله هبيدوا بنكبة ابتلاح فخيس ما يسري بتباح وخيس ما وخيس ما بهت داسفاح أهل البلا ليس لهم ميزان ahlul balaa laysa lu misaanu ahlul balaa laysa lu misaanu wa laysa yun suru loom diwaanu diglul ma wax la la daloon yoneen yaa ak saaba yaa walu yaa xajam yaa diglul ma wax la la daloon yoneen yaa ak saaba yaa walu yaa xajam yaa soo xelemee mbir ya mon ca baawoon mbirum sëriñ gaawaan woyof ci baatin seetal borom muñ gañu na ayoo baa sax yaa ka daa xëccoo di wat ne koo baa te tiw koo sant di wax alhamdu moo tax ba yàlla naa ko nix ma alhamdu seetal ma daane yàlla seetal ma daane yàlla ma daanu cib teen ñu boole koo ki gaynde ya yow ko cib teen gaynde ya fadd mar yaram wa muy ree ñi far ko jàngal rab yay waare yëg yaa na tombax duutu am ci Sénégal noonu yaa ko jàpp xar ja yaari gaal yëg yaa na na tombax yëg yaa na tombax duutu am ci Sénégal noonu yaa ko jàpp xar jëmam ja yaari gaal muy bëgg a wax يلا يبل جبريلو نيكو سوني اخدو تدف مرسالو سو خلما مام سوني ابراهيم بام لا تام خليلا اك حليما نو نميا جنان نكو موي باي فيلا با يلا رندي لوكو اسماحيلا ñu delu ko talal ba neuk num rusa def ko ci bir yalla siral solom sa setal ma yónneen ba ñu naan Yankoba seetal ma yónneen ba ñu naan yónneen ba ñu naan Yankoba ba ñu naan Yankoba seetal ma yónneen ba ñu nay at di pëlëmtu nee ba dasi mboy rongooñ gannaaw ba Yuusufa Sanko ba fu mu jekkee saxoo yaa asafa soo xalamee Yuusufa ak mbokkam yaa dellu xalam ka somba ak tuumaam yaa dootoo ragal ku dul ilaahi naasi doo yoxe xeeti ngir pexem xanaasi na tub julit da yokku ay maxama ba muy simpi ñaaw teef bisub xiyaama na too di kerkeraani lawliyaayi ku wit laajal xëyru lan biyaa seyduna muhammad mas nañ koo génne mu dem ba na jaraan ñu di ko sànni doj te naa day njabaraan siduna muhammad fanaan na cim xuntu fanaan ci ay doj ànd ak Baabakar lu nekk ñuy doj siduna muhammad faj nañ ko tabal ku ci biiru sarwaan jox nañ ko tooke tew ko day kimaan keroog la yàlla wàcce saaru naasi ak falaxi mu cee ko xayru naasi bisub keroog la yàlla daani kéefër yëkkati lislaam yëkkati lislaam yëkkati lislaam loolu doy na tiitër yiw seyduna muhammad ku lay jaay taar ba sam xel dem ci yonen seyduna muhammad ku lay jaay taar ba sam xel dem ci yonen ka taaru ba yàlla ne ko saaro yaasin seyduna muhammad bu dul bën a sell ko seen na kaa seyduna muhammad deful am duuñ ba tax nga na cam faasin seyduna muhammad wowul ba na kongo taw yaramam du laal wiñ siwul ba na lëmbaxit aka jub yaasin seyduna muhammad borom bu ko yaaram doomi yaaram surtout Makka ak duma asu yaasin seyduna muhammad yow yaa ma jaral siduna muhammad ku way te ci yeneen baa ci waayam araf ya way da ngeen layoo faasin ci yeneen nee na tagg aw way toorlu naa ko ajjana faw yaasin li lee tax ma dib giw lim ci baatin di way seexu bamba mbër mi fuutu yaasin sulub naab rabbu mel ne awakaani laa mel la yal naa seex bamba maa ngi la yoole yaasin yiw siduna muhammad bëtam na bàq per ba di sef nanu baa tumoo gën a gis bërëb li mu yaar fa yaasin yiw siduna muhammad ndigam la na xiit ndigal tamal lan ko moolal te doq ga daf na yollu ne mbar fa yaasin siduna muhammad njamal yàllaam la wala jaalu yàllaam la yaasin judduwaale du maasu yaasin yàlla nu sëriñ boole dimbali jërëjëf jërëjëf sëñ Ibra sëriñ bi day day mel ni sëñ Moussa Ka moom lépp wax na ko te li li soxna si doon laaj ak li ñu doon bëgg a waxtaane lépp dafay mel ni feeñ ci biir wayu macha allahu taala waaye ñu bëggoon rek nga dikkal ñu fi nga xamante ni foofu la sëriñ bi tënk ci wàllu laylatu xadar mu mel ni ni mu ko waxee jàngale ko ak jun niyeetun saa akun rayas mu mel ni euh, at mi ren dafa tombee mu nekk euh, rayas ndax ci bisu àllarba lañ la ñu woor mu mel ni raaji ak ak yaagi boo ko boolee dafa daf lay jox 17 Euh, loolu mën a indil ci jàngale bu réy bi nga xamante ni Cheikhul Khadim jàngale na ko ak jitte ju ji nga xamante ni def na ko waaye préciser ñu nga xamante ne mooy guddig laylatul xadar bis bu nu wooree mu wax ne bis bi nga xamante war a laylatul xadar macha loolu sëñ sëñ Pape loolu moom rek ci sëriñ sëriñ bi ak ak lislaam yitteel ju ko lislaam yitteel ak it euh, njàngale pédagogique bi ko yàlla defal ci jàngale ba tax na. day fekk lu sori mu xëcc ko jegeel ko euh, moo tax te te moom li muy liggéey lépp ci lislaam di ko liggéeyal yonent bi saa salama da koy jaarale ci ay ci ay poral ci ci ay wax euh, rawatina ci wàllu wëy daanaka boo gisee lu bare bari bu dul xasida yi téere yi xam-xam yi mu def aw nit ñoo ko defoon nañ ko lu ko jiitu mu doon ay téere wi sax waaye mu ñëw def ko ay na ay nizaam ngir ñu ñu ngir mu gën a jege ci mokkal boo xoolee itam mbiru leeratul xajar bi loolu moo ci feeñ yaakaar naa ne eh, nii mu ko tënkee nii loolu sax jiitu na sëriñ bi waaye ñëw na gën ko xacc gën koo gën gën gën koo jegeel ndax ixtilaaf dafa bari ci leeratul xajar ci fan lañ ko jàpp ak naka la ak nu mu demee waaye li woon rek mooy salaatu salaama moom dafa bëgg màngo weeru weer wi yëpp ci aw yiw moo tax euh, daf ne suñ boroom dëkk euh, xamal na ko laylatul xadar bu mu ñëw ba ko waaj wax mu fàttale mu fàttale ko daal di ne joxañ ne na ngeen ko seet ci bis yu mujj yi ci euh, fukki fan yu mujj yi ci bis yu tool yi boroom xam-xam yaatal nañ ci ay détails yu bare bare bare waaye nag li may faral di wax bis mu ne mooy sëriñ bi moom dafa wax ne allamani lahul alim mimma yashaau min ulum suñ borom moo ko xamal lu ko soob ci xam-xam am na fu mu wax ne xafiztu ma sayna anit dafatir maanaam lim wattu nekku ci diggante fegg ak ak ak morom ma Cheikh Ibrahima Diop almachari yi bokk na ci bi mu koy mu ne alla allamahu rabbul wara bila taallumin yura fa faaqa kull man xara inda jami al ulama suñ borom moo ko jàngalal boppam moo tax mu raw ñëpp am na fu mu wax ne al allamani ilman lam yakun min attaallumi wa jaani bikun suñ borom xamal na ma xam-xam boo xam ne nekkul ci jàng léegi sëriñ bi ni mu tënkee loolu xel mën na cee dal bu baax a baax a baax a baax waaye bokk na ci li ci xel gën a mën a dalee mooy damay wax toujours ne gan gi gan gii ñëw nekk gan gu toll ni laylatul xadar dafa rëy ndax genn guddi gu gën junne weer lañ wax alxuraan moo ko wax genn guddi gu gën junne weer xayru min alfi shahr guddi goo xam ne tanazzalu almalaikatu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin hatta matal alfajar guddi yëpp lañ fiy nekk guddi googu dafa rëy moo xam guddi guddi gu rëy googu buy gane si ci weer wi yaakaar ne mën ñëw ci bis bi gën ci te ni ko sëriñ bi tënkee fu mu mën a toll ci ci ci weer wi ci biir weer rek guddi àjjuma gi lay tombé du ko mës a génn fu mu mën a toll bu dee bu dee ci njëlbeen gi la bu dee ci digg bi la bu dee ci fukki fan yu mujj yi fu mu mën a ñëwee guddi àjjuma lay ñëw te guddi àjjuma moom bu dara xewul woon rek. <laughs> waaw guddik àjjuma bu dara xewul woon rek. Euh, sëriñ bi ak weeru koor rek. سيرين بي اك لسام اك سيرين بي اك وير كور التوفيق دي دي وخا ما سيرين بي دا فا ام قصيده غو خاني داكو داكو ديف تودي كو شهر رمضان سريه امنا امنا بن ديوان بو خاني فيو ذات رمضان يا لنج تودي غا خاني قصيده وير كور ريك نيو تي نيك ورما لي سيرين توبا ام اك بغي سي ليپ لو خاني يالا جوخاج نكو سون بروم دا فا فونك وير وي fonk gi mu ko fonk moo tax mu jox mu mu jox mu mu mayuñ ci alquran alquran ci weer wii la wàcc شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن warma joojee sun borom jox ko yonent bi saa salaam jox ko nga xam ne yonent bi saa salaam dafa bëggoon weeru koor séntu na séntu na barax rajab mu feeñ mu ñaan suñu borom bare ko allahuma balligna ramadan nga xam ne mooy li sëñ Tuba Tuba wax ne ilahi qad tubtu fi shaabaana an rajabin ci ci ci rajab lay commencé waajal weeru koor moo tax suñ borom may ko lu bare bare bare bare ci weeru koor ba tax na tey jii laytul xadar fu ñu ko tuddee rek xel dina dem ci kenn ci njabootu suñ Tuba muy soxna Maymunatu Mbakke ci taxawaay bu rëy bu mu ci taxawoon ak ak feex ju Sëñ tubaa su ju ko suñu boroom defal ndax soxna may mënatu ba muy ba muy taxawee weeru koor booba ndaw la laytul xadar bu mu koy taxawee ndaw la nekk ci am néegam di fa jaamu yàlla ca Daarul Muxti fa la toggee ñaari ginaaram def ko ëmb ko ci bool dugg ci oto ñëw Cheikh Touba indil ko Cheikh Amadou Fadilou ne ko damaa fas yéene dundal guddi gi Cheikh Amadou Fadilou bég ca lool daal ne ko dina dina dina dina dina dem ba ci gëlëm am na kenn rek ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi ku ñuy wax Cheikh eh, sëñ Basiru Sarr jaamu Sëriñ Tuubaa mm-hmm. ñaari junne ginaar la ciy jox soxna May ñaari junne moom kese ñaari junne ginaar la ciy jox soxna May bokkut ak leneen ñi ñuy jógee feneen mm-hmm. bokkut ak nag yi ak xar yi ak gëlëm yi mu dugg ci dund mm-hmm. Sëriñ Tuubaa wax ne chahru ramadan ya weeru koor mooy sama mooy sama mbóot mooy mbóotam ndax kenn du tudd Sëriñ Tuubaa te tuddoo liggéeyam bu réy bi muy yoonam bi ci weeru koor wax naa ko fi sànq ne ci weeru koor la la ko suñ borom yi kenn du tudd suñ tubaa te tuddoo li ko suñ borom jox muy al maqudu min allahi bi wasitati rasulillahi ci weeru koor la ko suñ jox kenn du tudd al euh, weeru koor te tuddoo alquran te suñ suñ tubaa alquran moom gi mu ko moom feeñal am na lu ci feeñal ci weeru koor kenn du tudd sëñ Tuubaa te tuddoo Cheikh Rafal ci weeru koor la gisee sëñ Tuubaa ñaar fukki fan ci weeru koor la gisee ak sëñ Tuubaa te gisee ak sëñ Tuubaa Cheikh moo waral lépp coow leeg yoonu murid weeg lépp lu mën a xew gisee ak sëñ Tuubaa Cheikh Rafal ko moom lu jiitu Cheikh Rafal di gisee ak sëñ dara xew woon te ci weeru koor la xewee kon sëñ Tuubaa dama wax ne Ramadan sirriya ca gànnaar atum ñaareel ni 1904 la sëñ Touba ginnaaw weer comme ni mu ko comme ni mu jote woon yoon wi ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar te jëy noonee la la ca yor-yoru ca yor yoor ci bisub ajjuma ca 1904 ci yaakaar naa am dëkk si lay tombé foofe sëñ Touba ñu fanaan ci ci ci laytul xajar bët set di bëccëgum ñaar fukki fan ak juróom-ñaar la génn. ci yoor yoor dem ci saxara taxaw ab diir mu dellu siwaat fekk am na naar bu ñuy wax xasaan suñ tubaab fëgg fëgg fëgal ko mu dog mu ne ko kay bindal bindal bindal ma samaam am na lu mu na digte léegi muy sallallahu alayhi suñ tubaab di wax kooko di bind nga xam ne foofee la gisee yontu bi saa salaam mu jox ko li mu doon xaar yàgg na ko xaar nag ndax fi mu jaar yépp wirde yépp comme ni nga ko xamee ni jaar gi mu ci jaar mhm. dafa wax ne Seydina suñu borom dafa yebal Seydina Jibril mu far ci moom lépp loo xam ne ni mosoon na koo yor ci xeetu wirde sa ko alquran mhm. moom la yor diiru mu nekk ci géej gi alquran rek kitaabuhul azizu saara wirda mhm. moom moom moom la yoroon bi mu ñëwee gànnaar nag la la am tawféex nga xam ne am na bis sax wax nañu ne dem na gisee wax naa sëñ am satu jaxati ne ko am satu de damaa bëggoon nga ñaanal ma ndax li may xaar ma jot ci neena na sëñ am satu ne ko mbàkke bo defé ci man lutax ma man la ñaanal rek naa la ñaanal sëñ bi ne ciel way bu bis bobu la kérok la gisee sallallahu alayhi wa sallam mu jël mu ñëw joxal ko bopam al maqud min allah bi wasat rasulullah rek wax bi rek bat bi rek tekki nako lu ñuy jël lu ñuy jàpp lu joggé ci yàlla ci intermédiaire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naar boobee wax nañ mo ñak jël wirdo mourid ndax ñaar fukki fan ak juróom-ñaar la ko Sëñ Tuubaa bindiloo ba bis ba dellu see di juróomi fan ci korite la ko Sëñ Tuubaa woo ne woo ko ne ko yaa koy njëkk jël woo mag ñi yëpp daal dina leen ne képp ku ci yoroon wenn wird ko boolee ak moom nuurun alal nuur lay doon ku ci yoragul woon benn nag na ko jël te yem ci te xam ne doy na doy na la walis wu mën a doon loolu ci weeru koor la xewee moo tax ramadaan sirriya weeru koor ci la Sëñ Tuubaa am koo xam ne Sëñ Tuubaa da ko sol alquran ca gànnaar ñi ko wax fal Fall Taymaan ginnaaw bi ko Sëñ Tuubaa solee alquran fal Fall alquran lañ koy wax daana ñëw Sénégal jaxasoo nag njaboot Sëñ Tuubaa dañoo séentu dafa dafa ànd ak ay moroomam ñu ne am na wëli yu kawri bu fi nekk wëli yu nit ñuul koo xam ne euh, ku naqaree gis la nag waaye ku bëri baatin la bu ñu demee rek gis ko nag suñ ajo te ku mën a dimbalee la bu ñu demee rek gis ko sunu àddina faju kenn ki ne man dama am jafe-jafe ndax dama yor bor boo xam ne nii jaaxal na ma loolu te amul ma ko fay kenn ki ne man dama am jafe-jafe njaboot Modou Fall moom bokk ci askan woo xam ne ku ci mokkalul alxuraan doo tekki soxna sax doo ko mën a ñoom ñëpp te Modou Fall naqari xel loolu lu mu jàng fàtte ko ñoom ñu ñëw li yàllay dogal dañoo ñëw rek yem ci sëriñ bi gisee moom jafe gis géeg yëpp da fekku leen ci seen aajo nar a faju ñu ñëw fekk sëñ baa ngi boot ay loxoom di wër ci dor dor yi ñu ko defalal di jang alquran di tari alquran ci kaw ñu ni assalamu alaykum wa rahmatullahi sëñ bi sëñ bi ne leen waaleykum salaam wa rahmatullahi ñu wax ko seen yité ñom ñëpp ñu wax Modou Fall dal nako man di dama bokk ci askan wo xamne ku ci mokkalul alquran do do tekki dara soxna sax doo ko te man mënuma jang dara ba xam ko luma jang ma bëggoon nga dimbali ma ci alquran serigne bi ne ko te nga bëgg li sa morom ñi bëgg nee na mu mu baamuwaat loole mu wax sëriñ bi wax ko mu ñetti yoon mu ne sëriñ bi lii lii de laa bëgg boo ko mënee defal ma ko boo ko mënul itam ma dem rek te xam ne suñu borom dogaloo ko du tax ma mere la ci wala dara mm-hmm. loolu la bi sëriñ bi sëriñ bi ne leen bismillah ñu wëri jaar ci bunt ba ñëw mm-hmm. sëriñ Tuubaa dafa njaxlafoon lool mm-hmm. bi ñu fekk nañ ko mu jiitu leen fi barab ba toog bi ñëwee kenn ku ñaar ñee lañ wax li ci yéeme mooy ki nga xam ne borom bor la Mm. Sëñ Tuubaa ba mu ba mu ba mu jëlee la mu ko jox dimbalee ko ba mu génnee ba mu koy ba mu ko wàññee dafa yem ci borom képp dafa mel ni dafa wax sëñ bi ne ko ñaata laa yor ci bor mm-hmm. te da ko wax damaa yor bor rek kashfu bi mm-hmm. euh, kay yi nga xam ne jafe-jafe njaboot la am Sëñ Tuubaa dimbalee ne ko loo xam ne mën naa toog reen ba déwén du wuti ab dund Modou Fall nag Sëñ Tuubaa téye ko fa ne ko yow des fi ñoo ñu dem mu téye ko fa rajab ak Shaaban Euh, seentu weer wii ñuy def mu indi yu baree bari Sëñ Tuubaa moom réglé woon na loolu bu yàgg ci jamonoy Sëñ Tuubaa la Sëñ Tuubaa tegoon commission bu bu koy seentul weer ndax damay wax ne suñ tubaa moom tënku woon ci weer yi nasaraan yi ci hijriya la tënku woon moo tax li muy tënk li muy xas xasida yëpp li mu ciy def ci weer yooyu la koy tënk boo déggee jay sasin yeeg xëy sasin yeeg tël sasin yi loolu lépp ci hijriya la atum junni ak nangam xam nga atum jay sasin 1313 bu dee ci ati tubaab bi 1895 la suñ bi moom 1895 yoonam nekku ci li muy liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci atum lislaam ak atum jullit yi ci la koy tënk moo tax te li mu naan def dégg nga ko mu ne salaatu sitta bi ma dexi sitta lépp dañuy xam weer wu ne lam cay liggéey moo tax weer wi da koy séntu séntulu weer yi yëpp fukki weer yi ak ñaar mu séntulu weer wi ba koy bañ koy séntu ba saabaan euh, dewe bañu sentu ramadan sëriñ bi mu ngi won ci ñi sentu weer wi bam ko sentu ba seen ba seen weer wi dafa taxaw ci mbolom mi di xol ba seen Modou Fall daal di waxu wut ko bi téeku japp ko bokku ko fi di dox ak mom di muñ tek loxam ci bopam diko door nan ko amarani rabbi bi an utika al quran wa tajwidan wa tafsiran sa borom digel ni mo ma jox la alquran nga mokal ko mën koo tajwid man koo tafsir te yii bu ci nekk mbirum boppam la. waaw fi ne mokkal alquran taxul nga mën a tajwid. mokkal alquran mën a tajwid taxul nga mën koo tafsir. Mm-hmm. waaye yépp la ko boole boole ndox sëriñ bi ànd ak moom di wax loolu ba yegg ci ab tóoj bu ñu ko defaloon sëriñ bi yéeg ca toog daal ne ko bismillah Modou Fall mel ni kuñ tëj mu commencé Bakara. di tari di tari di tari di tari di tari di tari ba indi ma sabilu mu ñaar fukki isip sëñ bi ne ko xif mu taxaw foofu ba ci ëllëg se sëñ bi ñëwaat def ko noonu mu ko defoon di wax loolee mu doon wax ba yegg fa mu yokkoon ne ko bismillaahi mu tari mu commencé indi ma sabilu di tari ba wala tujaadiloo muy ñaar muy ñeen fukki isip te suba si sëriñ bi ñëw defaat ko noonu mu commencé wala tujaadiloo ba daasi sin bi ne ko des fi di ko defee ne di ko defee noonu mu des fa diiru weeru koor wa bis bu set mu tëri ñaar fukki sib diiru ñetti fan ah diiru ñetti fan ci la ko sëñ Tuubaa sol alquran mu bokk ci ñi gën a mokkal alxuraan ndax moom alxuraanam bu koy tari day mel ni ku koy ku koy gis ñëw na Touba bi Cheikh Amadou bashir bi ko bi yebalee Porokhane bi muy dem Porokhane ngir dekkal ko bokk na ci ñu àndal Modou Fall moomu daana ñëw ci sëñ Chouaïbou am na bis wax nañu ne toog nag sëñ Chouaïbou ba yàgg mu jàpp ci bakkanam sëñ Chouaïbou naan ko yow de Mbàkke sa bakkan bi daf muy niroog sama bakkanu waaja muy bi sëñ Chouaïbou ne ko waaw waaw waaw yow de fàttali nga ma sax ndax yow de yow lañu wax ne yow la sëñ Tuubaa soloon alxuraan loolu nu mu demee ne ko man daal saa soo xamee ne sëriñ bi jàpp na ma di wax loolee muy wax ba ba bañ yegg fa mu bu ne bu ma bismillaahi bu may tari alxuraan ji day mel ni écran la bu may jàkkarloo loolu sëñ Tuubaa ci shahr ramadan la ko def te loolu boo doon xool histoire alxuraan bi mu wàcceeg léegi xam naa doo ko fekk fu bari de kon ramadan ji mu wax ne ramadan sir yi ak lam doon xaar lu rëy loolee ci yonent bi saa salaam nga xam ne loolu borom tariixa mënta am tariixa te amul loolu nag da ngay am lijaasa bu dog bu joge ci yàlla ak ci yontu bi saa salama ñu jox la lu saw ñu di jàpp li fek amoko rek yow yow ab talibé nga ci biir fi nga fi ngay nek lolé mu doon xaar ci wér koor samadu qad awsalta li fi ramadan maa rumtu minka qablahu bi fayadan looloo koy firndeel xasidaam gii nga xam ne mooy wa alayna nasrul muminin bu rëy bii nga xam ne Sëñ Tuubaa daa ay wu ngeen di dégg ci réew yi li fi tey li fi tey yegg si barkeb gi la moo tax lu ne mën nga koo dégg fu ne waaye Sénégal am na loo xam ne du du du du dem ba jéggi dayoo mukk ko. xam nga ma ko baalee maanaam wérdu maxuus boobu bëggoon naa nga maanaam leeral ñu gannaaw bi ma jotee ndigali defin wi lagit lan moo taxee Serigne Mountakha def ci yitte ci ñaaxaat mbokk yi ñu dem julli ko waaw ndax wérde woowu dafa doon lu rëy rëy rëy sëñ bi wax ci lu bare bare bare bare ci ki ko jël nga xam ne sëñ Tuubaa dafa ñaanal sax ki ko ki ko jël waktub li man axata bir di ya karim xam nga nu ko waxe bone sawa sawa ban la yarim mooy ci xasida ak kulli nga xam ne mi ngi ci wax ya rabbi jaal muridina maan fi hisnika alhasin wa shamlajma chamlajma واكتب من اخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يرم waaw suñ borom sëñ Tuubaa dafa dafa ñaan suñ borom nang ma defal képp koo xam ne jël na sama wirde wi di ko jëfandikoo nga defal ko ci yool boo xam ne amul yemuwaay kenn du ko natt fenn Cheikh Amadou Bachir def na ci ak xasida Cheikh Amadou Bachir bu waajuru sëñ Muntaxa mii def na ci ak goo xam ne nii barkeb ak ak dooley wirde wi moom la ciy wax boo demee ci mi ne ci ci irwa un nadi bu Cheikh Amadou Lamine Diop bi indi na ko ci xas dëgg yëpp indi na ko ci nga xam ne day wax ne sax sëriñ bi dafa wax ne wirde wi dafa ñëw def istixraq maanaam labalaale wirde yi yeneen yëpp mu mu mel ni ku ko yor yor nga wirde yëpp ku ko yorul wirde woo mën a yor wirde woowu nga yor waaye wirde woowu moom mi ngi mel ni alxuraan rek alxuraan ni mu labalee yeneen téere yi noonu la wax ne noonu noonu la noonu noonu la labalee nga xamne ne ki koy ki koy ki koy jëfandikoo suñu borom dina dina dina ko fegal shaytané dina selal ab xolam ba ak ikhlas tabbi ci mom te lu muy jëfati ikhlas googu ci lay te ikhlas mënul ñak ci jëf bu ci ñaké du bax wa maa umiru illa li yaabudullah muxlisina lahu diin loolu ci jeex jeexital yi yi la bokk bokk na ci day sellal ab jullit ndax choroot yi yi nga xam ne ñoo ko ñoo ko wër bokk na ci jàng alxuraan force la ci boo ko xasee jël jàng alxuraan li gën a néew ñett isib di nga ko jàng ci boo boo boo boo doonee borom alxuraan ju ju woyof mm-hmm. boo doonul borom alxuraan ju woyof faqra uma tayassara min alxuraan faw nga jàng ci dara da mënoo xëy bis ba bis ba bis bis bi yëpp moom doo jàngal xuraan ki jël wird murit sañu lool bokk na ci jullee ci mbooloo soo ko mënee buñ ne allahu akbar nga jàpp jàpp tooy xépp tegu ci yoon bi ba ca jàkk ja di ci mbooloo saa ko mënee bokk na ci siyaare nitu yàlla yi ak liggéey leen te loolu lu ci nekk am na ñu ko ñu ko ñu jàpp lool kese def ko muy seenu jàmm yàlla lu ci nekk bokk na ci nak tet mbollem xetu nak xetu bakkaar xetu xeetu yu ñuy muy xet ay ay jëw ay fen ak ay nan sàngara ak ay war ay xet yoyu loolu mom yow dañ la koy sori lool. yooyu yëpp kon loolu loolu ku xam ak jamono. ndax Cheikh Abdoul mantakha day borom jamono. borom jamono day xam jamono. xam li mëna defer nit ñi. motax mu xirtal len ci ci lolé sëriñ bi nak bo gisé tous dama koy wax dama gis ne wax ne mam sëriñ touba sun borom da ko defal euh jëfël faraaji sëriñ ki moko wax légui sëriñ touba da fa wax ne li kun bikum sarmadan wajal masir yada jëfël fara fil wara jëfël fara lil wara mithl al mahri loolu motax mu bari yo xamné da fay da fa am taxawayu lépp lu nit di soxla woo te mu te suñu borom defal ko ko ci wirde bi rek defal ko ko ci leneen lu baax lu ne loo ci jàpp mu am mu am taxawaay boobu bokk na ci xasida yi xasida moom kese yoon la wu jëm ni nit ba ca yàlla bilaa xalwatin wallahu abqa kama ax naa Sëñ Tuubaa ko wax kitaabati faaqat shuyuuqa tarbiya wa kulla xayrin wa shuyuuqa tarqiya loolu doy na xidma muy liggéeyal ko liggéeyal ko loolu loolu doy na yoon jëm ci yàlla boo ci boo ci jàpp rek taxawaay bee bee bee bee la la la la am moo tax murid yi mel ni sax maanaam wirde woowu du ñu war a jël wala dafa am. ويفضل ووسيلة عبد لديه مفضل قبل الإله متى مات وترددي في مسكن مسكن طوبى علتي لقد تنزل دايخ وفخر خر سلوما بالمستوى من سبقه إذا أردني فيما مسكني طوبى قالت لك لقد يا ربي صل على الحبيب محمد وعلى آله وعلى صحبه قد فضل muhammadin walaale wala saabina xaat foot di idaa watamaat himbo watarta di fi maskani tuuba balate ak dun lilaa جغا لك الكلي لك جوستي لك نيتي لك غربتي ومواتني المنزل لك jëlale laka laka joosati laka laka niyati laka laka laka qurbati wa mawatini wal laka malbasi wa yurati ma lawliya wala kalmidad wa masirbi allah gorowa

لك تنسل لا إله إلا الله لا إله إلا الله أرجعت لواتها لراديه لك الدراج لك sabab ba jërëjëf am le daa madama أبدا لك تنزلا هو هو نافع هو هو رافع هو هو واسع الجميل المنمل هو مالك هو هو نافع هو هو رافع هو جملا مالك له زرق وغرب ودو وكذاله بار وبار يا ملا مالك له وكذاله بار وبار الرفع وبآل بعد الرفقة أنكم إلى tarda falo ridwanu man dawqoy dawqoy dalay alaymo ala rizqimul lazi tarda falo daifun daiqan ya tajib yunul khira mimman yukarimu ma يشاء ويباجل لفن هون يرتجب ملخرا من يكارم من يشاء ويبادل لا لا لا مدبرا لله بالقرآن مع المرسلة وليت أن لا من ولا من مدبرا لله بالقرآن نعم المنزل وليت أن لا من مدبرا لله إذ القرآن دنا مع المنزلة بك أبقي بي وبخدمتي مع النبي واجعل الذي من أمه لا يغسل أبقي بي وبخدمتي مع مع النبي وجعل الذي من مولا من أبدا له وذوق لي ما أسير وعليه جل جلاله أدوى قلوه أبدا له وذوق لي stay walay ijalla jala jalalo atawa konna joyto waradi no anwa artaji kawni radianindo khadu yof dilawa joyto waradi no anwa أرتجي كوني رديا من لو أبلي المنى ولا وذي الذي صلي يا يقدم من يسعى ويفضل عمل المنى منا وعلى وسيلتي سليا أن من يقدم من يسعى ويفضل صلي على محمد سيدنا محمد allahumma salli ala sayyidina muhammad salli ala muhammad sayyidina muhammad ya rasulullah allahumma صل على سيدنا محمد baay mortala lanoo yaakaar fii ba fanu jëm seydina muhammado Seex Bamba salaala muhammado seydina

Seex Fallu lanoo yaakaar ana soppay galas baayu mbeen Seydina Muhammad سبيلا مع جميع نعمه شيخ بابا احمد رابي العظيم حمدا كثيرا مصليا على الكريم دام خاد الفرا للامام جرمك اذكر ذا العرش المجيد شكرا يلاقي مسلما على الليلة بك الكلمة قلبك سكر دايس قسنا بخدمة ما سنة ساقمة في الألنة دام لو أفك قلبك لاغتا بدايا بما يحب ماديا وقادلي أخرادي عندام سادني دار الكرم جل مكة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذكر سعينا عندام بالمنتخى المحترم جل مكة للمستعى الذي ترام له صلاة وسلام maati daay kullaa maramtu min al mukarram jol makk sali ala man nin jaal xutbal wujudi hina hal wali sayna ala wasabi jol makk sali ala man juhila xayru nabiyin fa sotay yonent bi nan jaddala dam fitini wa azimi jol maka wa salliman ya rabbi ya ala khitami lanbiya daysan wal mursalin lasfiya imamina al muazzami jol maka wa sal ya dha nihmati ala rasuli rahmati daysan mikhlaq bab nihmati dam sababi kulli nasami jol maka wa salliman ya samade على النبي محمد وعلي والأمة دا كل ريت رسومه جل مكة يا سلبقى والقدم مني تخاب القدم والتردي ساتقدم يا منير الأخم جل مكة ساك خيار العربي ساك منير العربي سان ساك سبيل طلب دام طبيب أهل سقما جل مك سلي على باب الهدى دام نايل مدام دام ليس الإدام ردا باب الأولى وكرم أنا سبي ينتي بسلي على باب الهدى نايل مدام للندى للندى ليس الإدام ردا باب الأولى وكرم مام شرنا ولم يكن متهما ولم يكن مكسما ليسان bal faaxa kulla man sama da min muntamin la mam cerno walam yakun mudahama walam yakun mukassama ndeysaan billahi cerno màgg na min muntamin la Cheikh Ibrahima man bi sadat bi sadat xitaal seera faal masa am faal yom ridaawal wa jamee am bamba waan yaquudalin fi abadin bi noqobe kudi salaamil muxarribe daam fi lantihan wal maxarribe ana soppi sëriñ fallu saay du ñeewaayu keneen sëñ fallu mbakke sëñ fallu deesu la gëm di gëm leneen non sa diina doy na xarnu be deesu la gëm di gëm diina xarnu na xarnu bee alaaji fallu mbàkke baayu mbeen alaaji faadiloo dee gëm di leneen sa diina xarnu bii si di di baayam lay royaat leerug cosaan nga day royaat ndey jaa di xëyri muxsinaat moo doon mbooti xarnu bi sëriñ fallu mooy noo ba lub lislaam ci ñun boolem sëriif yi moo ci gën donay wusin walansan may xaadamam ci xarnu bi alaaji faadilu déglul ma wang la lëf ci ay jukkoom lewet woyof ànd ak sagoom te nuru na baay ba man na doom ëmb na kersak xarnu bi yooy naa ko jooyu xol yu foora foor man ñàkk naa rusu foor jant la moom tax mu muur leeru biddi yu yow xamal sëriñ saa riñ saaliw dongo yu ñoom ñàkk nan mag ñi kasaaka ñàkk nan ñun fu nuy jëleeti waaja daan fa bi gone ka tam-tamal àdduna yaaka mën a war xamoo ku baax xamoo waloor li fi taxaw danga ka war saw menukaan amul solo Seex Saaliw wiitul ngono sa dem gi daal jaaxal na noo yow lanu xam nga dem ba noo ñun fu ñuy jëleeti xel mu dal yàlla yàlla yokk leeram amin bak sëñ Tuuba fayal nu ko amin bak sëñ suñu àlla suñu àlla suñu xol sedd na wax dëgg yàlla xol yëpp tooy nañ ndax euh, ustaas looy jàng nag du mokk ni ko day faatu di waxee ndax boo déggee ci bëru yi mu jàngee yu uute jàng ab laay Ñang ba ci bàyyi Mor Sàmm dellusiwaat ci Xaadim Géey te njàng ma yàquwul dafay mel ni ku tarbiya am njàng la macha allah yàlla yàlla gën laa wéral ndax lii rek lañ bëgg ci ab jàngkat mu dal am ay teggin jotol araf yi waaye teg ko ci xam-xam boo xamante ni kuy dégg ni muy jàngee ndax nii la sëñ Tuubaa daan def ak mag ñi daan wax sëñ Masamba nii la ko nii laa ko tuxalee ci urul ayni yi wala nii la ko malaakee daan da doon daajee waaye fexeel ba mënee ko ni ay ak fere yi mu mel ni loolee ci la nekk ba mën ko defee nii di di leen ñaanal lii ñaar baax a baax ci taxawaay yu yi ak ni nga xamante ni noonu ngeen gungee Proxi TV yi ci lépp loo xamante ni rek mi ngi ko woo di ko def ah, xam naa ni ngir tënk jataay bi rek euh, euh, ni nga xamante ni noonu la ko sunu kilifa gi bu baax gi doon doon leerale léegi ci diggante Serigne Touba ak laylatu xadar waaye day mel ni diggante Serigne Touba ak alxuraan feeñ na ci waaye diggante Serigne Touba ak koor feeñ na ci mu mel ni laylatu xadar noonu nga xamante ni noonu la ko Serigne bi tënkee ba mu ko waxee léegi ëpp na téeméeri at waaye saa su nekk noonu ma ko jàngale rek noonu la ko suñu borom di dogalee ci diirub jamono mu mel ni bu ñu wooree dimanche ñaar fukki fan ak juróom-ñaar mooy nekk laylatu xadar day tombe ak alxamis bu ñu wooree altine fukki fan ak juróom-ñeent bu ñu wooree talaata ñaar fukki fan ak juróom bu ñu wooree àllarba comme tey fukki fan yi ak juróom bu ñu wooree alxamis ñaar fukki fan ak ñett bu ñu wooree àjjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñeent bu ñu wooree samedi ñaar fukki fan ak benn waaye ne na illaa axiril aaya lépp lu munti demee suñu borom dana ko tëppale ak bis bi nga xamante ne mooy mooy bisu alxamis di guddi ajuma te saa su nekk noonu lay demee mel ni dalil bu dalil bu wér la waaye li ma bëgg mu tënkal ma ko rek mooy li nga xamante ni moo taxoon sëñ Tuubaa jóg muy defar nit ña ndax am réew bala nga koo defar dangay defar nit ña sëñ Tuubaa bi mu bëggee jumaa ji jugul uti ciment ak xeer ak weñ dafa fexe defar jikko yi defar nit ñi ba biñ tollee ci loolu nit ñi taxawee ko la mu defoon ci maam Thierno def ko ci Ibrahima Fall def ko ci maam Cheikh Anta def ko sëñ Daaru Assane Ndiaye def ko ci mag ñooñu nga xam te ne moo nekkoon yitteem ndax ak tax tolluwaayu jamono lan nga ci mën a jàng ak buñ solution la sëñ Tuubaa indi ñu daal koy tënkee jotaay bi daal koy yëkkati ndax dafay mel ni waxtu yu romb nañ ko bu yàgg a yàgg waaye neexaayu jotaay bi moo tax réalisateur yi boobu ba léegi ñu ngi am mbégte di la ñaanal bu baax a baax ci dal gi ak xam-xam bu sell bi ak gi nga xamante ni ustaas yu su nekk buñ koy gaaral ndax xam mën naa wér waaye du ànd ak teggin sëñ Tuubaa ne waxoon na ni xam-xam sax boo ko dee wut na ànd ak teggin bu munta ñàkk ba benn rek mën ci am na nga fexe am teggin na mu dénkoon maam Thierno ba mu koy jox sëñ sëñ Modou Moustapha ak sëñ xamante ni mooy njaboot gi nga dikkal ñu rek solution bi nga xamante ni sëñ Tuubaa digg na waaye liggéey bu ni moo taxoon mu jëkk ba mu defoon ko ca mag ña loolee dérogalaat na ko Serigne waxee ba def ko ci ndaw ñi ak bonne solution rek la Serigne Touba indi jàngale ko ci tolluwaay jamono ñu daal di yëkkati jotaay bi tàggatoo nag ndax waxtaan wi macha allahu taala neex na waaye xam nañu jotaay bi Euh, waxtu wi tënk na ko bu baax a baax. loolu de li ma njëkk wax rek mooy li Cheikh Abdoul Bachir waxoon. ci sëriñ bi euh, ci bi mu bi mu bi mu doon jàpp ci njaarim fekk mu yor loxo boo xam ne bu metti la. loxo bi bënn di naaj ci deret ak dëtt. waaye sëñ bi di di jàpp di sotti ndox di ko bomb. di ko bomb di ko bomb di ko bomb di ko moom bu ba fi mu doon jàppee boo ñëwee da ngay defee ne dañ fay rendi gàtt ndax deret mu naan ko xaw ma am ab baram nga xaw ma da ngay métti xaw ma métti woo waaye man ab jaam laa buñ digal te lim te lu mën a xew liñ ma digal dama koy def bi mu ko waxee daf ne fa kay fa wa huwa waarisul kamila li xabibihi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ni yonent bi saa sallam yore na ab loxo loxo bi métti mu ne ko ma anti الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت خوما ندخ لو ما لا خيو واي مان كوم نيكو سيرين بي واخي ريك ا آه، يونت بي صلى الله عليه وسلم لا موم سيرين بي تي يونت بي نينا انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق يلا داف ما يوني غير ما نيو موتالي سي جيكو جيكو تخ صلى الله عليه وسلم نيو كون نك فكيف لا <laughs> كوم سيرين بي موم موي ندونم لو تيه foofu la foofu lay jëm doomu aadama dafa suñu borom da ko fee wuutal da ko fa wuutal ci kaw suuf dafa ñëw ngir wuutu fi suñ boroom ngir mu mën ko fee wuutu faw dañ koy defar doomu aadama defar moo tax wax nañ sax sëñ bi danaan da ne sëñ Tuubaa daawul laaj ku la jur ku la yar la daan laaj ngir xam ne ne jur amul solo nit kuñ defar rek boo demee ci naxtul xadaa xaaj bokk na ci fi mu ci wax ne nee na rafetu teggin day nëbbu ñawuk askan ñawuk askan rafetu teggin da koy da koy nëbbu nit dina bokk foo xam ne tey jii ci ci ci ci aada yi ci réew yi réew yi dafa am ay aada ñii nii lañ la jàppee ñii nii lañ la jàppee ñii nii nañ la jàppee am na koo xam ne askan wi mu bokk askanu ay bandkat lañu tëgg ak fecc ak taasu moom lañ xam mu tollu ci ngone fer fer am soow rek nga jël ko yóbbu ko ci askan woo xam ne askanu ay sëriñ lañu jullee ko jàngi xorof lañu ñu xam mm-hmm. ak yar mu yaree fa ba am fanweeri at bu fi dellu see ku fi ñëw da nga koy sukka raamal ko mm-hmm. balaa mu laa leeral ci boppam moom yow am na foo ko la yow mm-hmm. lu waral loolu yar gi ak defer gi doomu aadama defer mooy tax mu mën a jot dayoom wutaa kon gi ko suñu borom wuutal ngir mu mën koo matal faw ñu defer ko moo tax sallallahu alayhi wa sallam ñëw doon samp diine di faaga gis nga boo gisee xeex yi xew ci lislaam ak bakkan yi ci faatu yëpp kuy defar faw nga am no balaa li ngay li ngay li ngay defar di di samp foofu am foo jaar waaye yonent bi saa mu ëpp yërmande ci mbindeef yi ginnaaw suñu borom mi leen sàkk ndax wa maa arsalnaaka ji illa rahmatan lil alamin kenn ku ne moo la gën a yërëm sa ndey moom sallallahu alayhi wa sallam waaye gone yenn saa yi gone day feebar nga di ko faj pikir bi nga ko jam moom day jàpp ne lu métti la day jàpp ne da koy métital fekk yow ci dimbale ko nga nekk moo tax sallallahu alayhi wasallam ñëw bi muy implanté diine te xam na ne ci la ak deferu nekk moo tax la ci xew xew ci waaye ba mu ba mu sampee diine ba ba noppi gis nga ni mu ni mu ni mu ni mu gis nga sax dañuy wax ne yonent bi saa sanama ni mu sàmmantee mosuñoo gis ci plan de guerre yi ku mos a sàmmantee noonu xam nga ci xaswa boo xam ne mu tata yonent bi saa bi mu ciy yeble dégg nga li mu wax saxaaba yi bu leen rey gone mm-hmm. bu leen rey jigéen mm-hmm. bu leen rey màgget mm-hmm. bu leen rey ab fóori bu ngeen fekk ci barabu jàmmukaayu ki yàlla diine ju man a nekk nag bu leen dog sax garab bu tooy buy meññ xoolal kii Sëñ Tuubaa ñu noonu noonu la ñëwee bi mu ñëwee loo ci loolu rek la jubloo xam nga njëlbeenu sëriñ bi yi wane ne ak defer ak defer nit moo ko tax a jóg ba mu ñëwee li mu njëkk wax mooy لما أخوان لقي نسافة هني رسول الله برب أصحابك بالهمة ولا تربي بدرس فقط جان رك دويت همة همة جوجونك موي دفروكي صلى الله عليه وسلم بكو سن بروم دي تاغ تي القران مو گن او اسكان تي نيب مو گن او اسكان تي نيب واي تاغي وكو اسكان وو jikko la ko taggee jikko mm-hmm. kon nag am réew bokk na ci li koy tabax mooy tabax nit ñi ci jikko ci makaarimul axlaaq soo ko tabax ay infrastructure nit ñi nit soo leen defaree nit ñi ñooy defar mm-hmm. waaye boo fi ne ñukk nit ñi defaroo leen dem tabax ay tabax infrastructure soit muy ay tali mm-hmm. wala muy ay stade wala muy lu mën a doon nit ñoo ñu nga tabaxul ñoo ñëw màbb loolu nga tabax am na loo xam ne suñu yaakaaree ne moo ñu développé dañuy tabax ba mu ne ñool ñu ñëwaat mu mabbu ko ci suuf tey boo demee ci réew yi nga xam ne am na réew yoo xam ne duñu ay jullit Chine ku doon réew réew am na ay jullit waaye ku doon réew réew jullit ku doon lim réewu jullit yi doo lim Chine waaye xool leen tey fi ñu yàgg ci développement ci àdduna bi ñépp xam nañ leen ñi ñuy tuddee première puissance du monde muy Amérique nii lañ leen def Siin nii la leen def dëgmal na leen lool xaw na leen a gañe sax fi mu ne nii voilà lan moo ko waral yar ak defer seenu ñoñ ba gone gi gën a tuuti bu romboon benn lii ci mbedd mi dafa jàpp ne da ko fay war a dindi ma bàyyi la nga joxe dénkaane bi léegi dénkaane bi mooy ñu delluwaat rek dénkaane bi mooy rek ñu delluwaat ci njàngaleem diine rawatina njàngaleem sëriñ bi euh, réew mu ne suñ borom am na kum leen jox mu gën leen a jege ci defar man jàpp naa ne Sénégal ñu baax ñi bari nañ fi waaye Sëñ Tuubaa de suñ borom jox na ko Sénégal ñu mën a jëriñoo ci moom ci lu yaatu mu wax la tuuti rek ci li nga xam ne waxuma sax ci baatinu sëriñ beeg nangam moom ci njàngaleem ci àdduna buñ ci buñ ci tënk woon ci la ñuy mën a moom suñu bopp cent pour cent murid yi jëluñu ko cent pour cent de njàngalam sëriñ bi ci wàllu économie ci àdduna ci organisation tuuti lañ ci jël tuuti te ku ne xam na ne mboolem kuréel yi nga xam ne nii moo xam kuréel diine moo xam kuréel lu mën a doon li ci murid yi mën a réaliser kenn mënu ko réaliser te ci njàngalam sëriñ bi lañ ko teg te sëriñ bi bi muy sànc dafa dem ca àll boo xam ne nii géej jegewu fa lenn lu ñuy sukkandiku loo xam ne mën nañu wax ne mooy mooy mooy mooy ci la nit di di di jaare amu fa bi mu sañcee dëkk bi ak léegi toll ci téeméeri at ak lu néew bokk ci dëkk yu yi mujj ci réew mi ci dëkk yu mag yi waaye ku ne capital bi rek moom nga ciy teg tuuti lañ jël ci ci ci ci ci ci am njàngale tey jii euh, Sénégal bu jëlee bu bu bëgg a am réewam tënk ko ci ci ci ci ci dëkki nasaraan yi ñu tënkale ci ay banque mondiale ak FMI lu teewoon ñu jël njàngaleem sëriñ bi xolal xolal système bi tabax Masaalikul naan dërëmu kenn dugg ci ku lay topp di la tegal benn condition wala muy sukkandiku ci loolu bëgg a jël sa ressource bi am sa réew yépp mu bëgg ko yóbbu ci àll bi système bi tabax. jumaay Touba ba fi mu yegg système bi tabax université bi. bi ñu ko sampee ak léegi matagul trois ans. ñu tabax ko nga xam ne tey jii trente sept milliards la. léegi weesu na vingt milliards. vingt milliards yi moom duggagum na moom. léegi te dara du du mu état du dërëmu benn benn kuréel. bu nekk bitim réew. loolu njàngaleem sëriñ bi la. macha allah kon nag li may dénkaanee loolu. loolu mooy ñi xeeñtuwaat ko rek bu baax a baax baax baax baax. am na benn benn premier ministre bu dëkkoon Burkina. am na ci benn congrès boo xam ne président yi ak notable ak ak ak ak nit ñu mag ñi ci Afrique ñoo dajee moom bi mu jëlee discours bi mu def dafa wax ne bu Afrique bu tënkoon am njàngaleem ci l'enseignement Cheikh Ahmadou Bamba konoon dañuy mën a moom suñu bopp te weesu nan fii malgré du jullit te du sénégalais kon nag loolu moom ñu ngi koy ñu foofu la ñuy masaalik diir bu ñu ko joxoon yàggul te mm-hmm. teeru baa ngi ni mm-hmm. nga tàggatoo kon foofu la ñuy wàccee suñu kàddu <laughs> ñu ngi santaat yàlla bu baax mm-hmm. di sant bu ci jataay bi mm-hmm. bëgg nañ ci sant nañ ci yàlla bu baax ci sunu mbokk yi rawatina xasaayit yi ñu fi yëkkati mm-hmm. kenn ku nekk ci ñoom ndaanaan la bu baax a baax xam nga man mm-hmm. euh, man damaa mën a jàng moo tax man damaa mën a euh, jàng moo tax moo tax waaw moo tax mën a xaree jàng jàngal waaye ñoom kenn ku ci nekk ci ñoom maanaam sama xol sedd na ci ci ci ci am njàngal ñu leen di ñaanal sama borom fépp foo xam ne nii xasaayit yi yeggale na fa Euh, jànkatu xasaay rek muy muy mu yàggale ñu fa ci ci barkeb alquran kër gii nag moom sunu kër la euh, ñu ngi sant yàlla bu baax di jaarale cant gi ci sunu mbokk mii Baye Youssouf mi nga am ne mooy sunu buntu fii ak sama xarit Oustaz Hussein moom mbokkam la moom moom ñoo jàngandoo mm-hmm. ñoo xaritoondoo seen waajur yi di wëllëre mm-hmm. ñu nekkoon Mauritanie ci Nabaxiya sama diggante ak moom ci oustaz la ko yàlla jaarale alxuseen maa ngi koy nuyu bu baax di ko siyaare muy ku ñàkk ñaante baax lii rek la mag ñi doon doon doon doon doon doon liggéey alhamdulilahi rabbil alamina euh, ndono loolu yéen a ngi koy sàmm bu baax baax yàlla ñu koy sàmm borom doole kër gii di Proxi TV yi mhm. sama borom ñëpp koo def muy télévision fii ci Kër mhm. na sama borom euh, dolli koo téye te yëkkati ko ba mu bokk ci télévision yi gën a mag ci réew mi mhm. ci façon yëpp ki ko jiitee ba ñi ci ñi ci suuf ñëpp mhm. sama borom dool leen kattan may leen xaalis bu bare bare bare ba li ngeen bëgg liggéey ngeen liggéey ko ni ngeen ko bëggee waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyu nag bu baax tey ñaanal Cheikh Abdoul Mountakha te di ko ñaanal yàlla mu guddaloo fanam loolu jullit yépp ku koy ñaanal ndamul lislaam la mhm, mhm. lislaam bi la téye ci loxoom nii te loolu kenn tablewu ko moo tax ñëpp a ngi koy ñaanal sama borom guddal o fanam te may kubéer ak mboolem kilifa diine di nuyu waa Kër Massar rawatina Touba Sotra gii nga xam ne moom fii la sax télévision bi far far far ñëw. daa far ñibisil la. far ñibisil ñu waaw. ma ngi Sotra gi xam naa ne ñu ngi may seetaan. macha maa ngi sant yàlla bu baax ci dëkk gi ma dëkkuloo fii. Mm-hmm. ndax ay mag ñu baax rek a fi nekk. Sotra man dañ maa bëggal si seen bopp. Mm-hmm. mag ngi ma ngi dëkk bi kenn ku ci nekk ku ma ci fu ma fi neex mën naa fa fanaan këri Sotra gi yëpp. Mm-hmm. maa ngi ñaan jàmm mu am ci réew mi yëpp. am ci Sénégal. waaye am fii ci sotraaj aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu yow tam ñu ngi ñu ngi bëgg ci yow bu baax a baax a baax ndax xam-xam bi rafet na am na ay teggin tey wax dëgg yàlla ko dégg ni nga waxtaane xam ni xam ni xam ni xam-xam la ndax ñaare bala ngaa dugg sax ci sëriñ bi di nga indi yonent bi sa alayhi wa sallam ñu ngi ko dundee hadis ak alquran doog indi jëf ji nga xamante ni Cheikhul Khadim jëf na ko tamit lu rafet ma bàyyi soxna Ndeye Fatou rek moom mu daal di tàggatoo pël pël bu ñuul waaw pël bu ñuul bi <laughs> ay ca euh, la am bu mag a mag ci teewoon ci plateau bi ndax comme ni ma koy waxee saay su nekk rek man ba moom fu ma toog ba jóg te jëlewu ma fa loo xamante ne bi may ñëw indaalewu ma ko woon dama naan new ma fa woon sama jëm rek a fa toogoon waaye xel mi newu fa woon kon ñuy sant yàlla bu baax a baax ndax bañ fi toogeeg léegi euh, ak njàngale rek la moo ciy dugg mooy jógee ci ñoom di ñëw ci ñun ñi euh, ñu kontaan ci bu baax a baax a baax a baax a euh, baax di gërëm bu baax a baax a baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo toogoon di ñu seetaan bi ñu tàmbaleeg léegi ndax nag yombul ba ñu tàmbalee ba léegi ñu jàkkaarloo ñu duñu seetaan nekk ci réseaux sociaux yi di ñu euh, bégee bu baax a baax a baax amuñu seen fay lépp lu ñu def rekk pour yéen la euh, chaque jour ñu leen koy wax chaque jour ñu koy dëkkal ci seeni nopp te dara waralu ko lu dul dëggu gi mu dëggu ci ñun euh, loolu doo nga tax fu ñu toog di fësal suñu cofeel jëm ci yéen di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ci ànd bi ngeen àndoon ak ñun di jaajëfalaat bu baax a baax suma tonton yi ak suma papa yi nga xamante ne bokkoon na ak ñoom plateau bi ñu nekk ay nitu dëgg nekk ay nitu yàlla nekk ay nitu macha allah ay nit yu yar nekk ci ñoom ay nit yoo xamante ne di toog ci jotaay boo xamante ne dañ ciy nekk ni naa ngëneel la pour man euh, ngëneel la pour man ndax ay ndaw lañu nekk ci yoon woo xamante ne euh, ni nga war a jaaree ci yoon bu baax bi noonu la yoon bu bon bi di xëccee naan la kaay ci man mm-hmm. kon bu ñu gisee jotaay bu mel nii man pap bu ma woowee ni ma caat kaay ajjuma ñu def émission dama naan woowoo ma pour ñu def émission danga ma woo ma jàng si danga ma woo pour ma seral si sama xol danga ma woo pour ma xam si lu ma xamul woon euh, ma ciy kontaan bu baax a baax a baax di leen ñaanal yàlla suñu borom lépp lu luñ fi waxtaan waxtaanee yàlla na ko yàlla suñu borom euh, def mu nekk loo xamante ne ñi seetaan dañ ciy jëlee njariñ buñ ci waxee lenn loo xamante ne juum nañ ñu ngi koy tuub di ko jéggalu bu baax a baax a baax di santaat bu baax a baax euh, oustaz Youssouf Kandji moom moom vraiment dafa bokk ci man ak jëwrin Pape vraiment yàlla na yàlla taxawu bu baax a baax a baax di santaat di gërëm waa Proxi di wax fi nga xamante ne moom mooy daluwaay bu bees bi maa ngi fiy doog a teg sama tànk tey euh, ginnaaw ba ñu paree ak léegi yàlla na nekk loo xamante ne dañ ci am lu kaweel suñu njortu ñu dem ba ñu dégg fu kawe kawe kawe kawe nam ñu ngi ci yoon bi waaye yàlla na li nii sut suñu njortu incha allah yàlla suñu borom mën na ko te yàlla nañu ko yàlla defal euh, di leen wax caat la woon ci biir émission Ramadan à proximité doolee jën ndox doolee caat mère Ndiaye yàlla je vous donne rendez-vous prochainement d'ici là portez-vous bien merci beaucoup Thiat moom tamit ndeysaan xale bu baax la ku bëgg lu baax la ku amay teggin ku nangoo liggéey la xam naa ne bi nga nekkee kër ga di seetaan programme Proxi TV sa xol sedd na yàlla gën a sedd sa xol xam naa ma bàyyi sëñ Agassa rek moom tamit mu daal di tënk ay kàddoom macha allah. waaw sëñ Pape ñoo ngi rafetlu jotaay bi bu baax ci santat bu baax moom mi ñu kàttanal dooleel ñu bañ commencé ko ci bisimilah génn ko ci alhamdulilah rabil aalamiina waaye santat suñu yaakaar tey adduna muy Cheikhul Khadim di ñaanal sëriñ Mountakha Mbacké yàlla sabaram yàggal ko fi ci wéral ay cëram nañ koy ñaanale xalifa sëriñ Mor Samb muy sëriñ Xasan Samb di suñu wayjur di suñu xarit di ko ñaanale yàlla sabaram yàggal ko fi lool yàlla sabaram oefal yan bi lool ci barke Cheikhul Khadim mbooleem njabootu suñu mor gi mbooleem jullit yi fi nekk yëpp yàlla sabaram defal leen jàmm di rafet lu baax émission bi ni mu tëddeeg yëpp waaye di nuyu baax nag ñi àndal ku ci mel ne Seydina Jibril ak sëñ Moustapha wax dëgg yàlla moom mënuma leen a fay mm. di nuyu ñu ñoon topp jotaay bi di nuyu waa Kër Massar gépp di nuyu waa Touba Sotarak gii di ñaan télé bi yàlla sabarum gën ko yëkkati ci barke Cheikhul Khadim barke xasaayid yi di nuyu baax suñu àll ak suñu daaroog Seydina Oustaz ak yëpp rek ak gars yu baax yi ñoom Seydina Jibril suñ Pape daal am nañu mbégte ku la soxlaa ci ban numéro la mën a jotee waaw 77 496 46 38 macha allah waaw 77 496 46 38 boo ñu ci woowee nañ jot incha allah. tey dama xanaa ndogu Baye Fall nga ndogu waaw ma ne. ndax àll bi mu indaale moom macha allah gis naa nga ñaq ba <laughs> ba xaw a sar. <laughs> ah waaye du nuyu caat bu baax nag. Ah. am nañu mbégte am nañu mbégte daal. ndeysaan ndeysaan daal jotaay bi daal wax dëgg rëccu dara daal. <laughs> koor gi nag neex na wax dëgg yàlla. macha allah yàlla ñu ko yàgg fekke amiin te lépp luñ ci jàmm yàlla sabram nangu ko. ci barke alxuraan ak xasaayid am nañu mbégte lool. di nuyu suñu wayjur yi bu baax a baax a baax a baax. moom daal ñoo ngi nuyu ñëpp bàyyiwuñ kenn. bu déwénee yàlla nga nuyu soxna si. amiin barke si joxal ma <laughs> moom suñu àll jërëjëf ñu ngi sant bu baax a baax. Mhm. di jéem rek ci xasaayit yi mhm. ndax xasaayit moom wax dëgg yàlla boo bàyyee sa lépp topp ko. Mhm. war nga góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax ci ci ci ci njàngin bi. man yàlla daa dogal moom doon koo bëgg. ba nu doonee ndaw ba tey ci lañ nekk mën naa ne amagum sax fukki at nga xam ne damay faral di wax naan man xasaayit dama ciy góorgóorlu ba xeetu njàng boo ma jàngloo rek. Mhm. damay fexee mën ko. boo ma ko jàngloo rek ma jàng ko. bàyyi xaalis yeeg yooyu yëpp da koy. moom kay dama ne damay góorgóorlu ba xa loo ma ci jàngloo rek damay fexe ba mën ko rek. góorgóorlu ba mën ko. di tàmbalee ci kuréel. ba ci mhm. mag ñi seen njàng xeet yooyu yëpp. nga xamante ni bii damay faral di wax naan jànkat daa war a dem ba toll foo xamante ni bii am njàng sax da koy jàngale. waxuma yoreti micro di jàng waaye war nga mën a ubbi école sax di jàngale comme woykat yi ni ñuy ubbee seeni école naan dañuy jàngale woy mhm. wala fecckat yi di di ubbi ay kii naan dañuy jàngale fecc mhm. jàngkat war ngay jàngale jàng nii la ñuy nii la ñuy jàngee mhm. nga xam ne bayit yi sax am na bayit yoo xamante ni bii sax am na bayit boo xamante ni boo dee yëkkati di samp am na bayit bu gën a neexa yëkkati yëkkati nga xam ne boo ko yëkkati ngay gën a am facilité pour samp ko yooyu yëpp am njàng la du wees damay da jàng ba jàng sax suñ Tuubaa ba mu fi nekkee ñaata daaj leen doon daaj ci kanamam bu dee bu dee waa kër sëñ ma sàmb lii daaj leen daaj ci kanamam nga xam ko dem ba xam daaj bi mooy daaju diw daaj bu nu daaj rek da xam ne daaj bi daaju diw la wala am mag jàng sax wala nit jàng nga xam ne kii jàng bii mu jàng mi ngi ko jëlee ci daaju sàngam la ko jëlee waaw waaw kone waa kone bu nekk fam fam bàyyi ko nga xamante ni bii lu bu njàng fii bari na njàng moo xamante ni da koy gis mhm. mu doon njàngum aw sax wala rajas bu doy waar boo toppee koni bi koni di dem di dem di dem da danga koy fekk ba ci sëñ ma Masamba mhm. ci ah. daaju sëñ ma sàmb mhm. nga xam ne sëñ Ibra Fall buubu ma fa newoon doon ko doon ko dëbbee newoon ci kuréel gi sëñ Ibra Fall buubu moomu dem na ba sëñ Cissé mii doon ko roy mm. nga xam ne daaju sëñ Cissé bi mi ngi jugle mi ngi jógee ci sëñ Ibra Fall buubu sëñ Ibra Fall buubu mu ngi ko toxalee ci sëñ Massamba kuréel googu noonu la demee ba ci yu bare bare bare waaw yooyu yëpp waaw sëñ Mayib sëñ Mayib ma nga woon ca kuréel ga moom it mm-hmm. sëñ Mayib ma nga woon ca kuréel ba ne woon nan na moom it ab ndaw la woon ca kuréel ga mm-hmm. ñun daal xasaayit leen bëgg mooy suñu lépp des mm-hmm. bi bii ma doon jàng boo gisee ma koy faral di jàng dafa dafa doon loo xamante ni euh, pas pasan ci ya fa ngi ci mhm. yalla dogal bu yagul dar rek màggal touba gi dan koy jang bañ may ñu ci terrain mhm. yëkkatiwaat auto tegaat ci mhm. yaa ngi dégg kooku nag mënuñu fay sëriñ bi moo tax mu def ko muy alaaji goro a ndjay njaay wàdd koy saari baax baax di ko ñaanal lu mu mën ren bu déwénee mu mën lu ko ëpp ci dooley suñ touba ma ngi saari ñi fi teew ñëpp di saari suñ muntaxaa di ko ñaanal mu yag fi lool te mo and ak wër di bég lool ci sama xarit bi sëñ Ibrahima Samb nit ku baax la ak saa day toog di jàng nii moom kase waaye fu nu daje bu may jàng damay aw ba damay sawar loolu Ibra Ibrahima Samb mi nekk sama ginnaaw di ma aw mhm. te loolu baaxam moo ko waral nit ku baax la nit ku yaru nit ku am dal nit ku am fulla mhm. nit koo xamante ni bii yow li ngay def moom moo la ko yow booy jàng moom moo lay gën a bëgg njàng bi mhm. maa ngi lay ñaanal ci doole suñ Tuubaa ak xasaayid yi fi nga bëgg àgg yàlla na la fa yàlla àgg rek lépp loo bëgg ci xasaayid di rek yàlla na nga ko am te rafet naa ci njort rafet naa ci bu baax a baax a baax a baax mhm. moo jëriñ bi yónnee affiche bi rek ma gis ko rek mhm. damaa sawar dama noonu sax du ma ànd ak kenn damay ñëw man kese waaw lu may def rek <laughs> ñun ñaar ñu bokk acca acca tey ku la soxla ci ban numéro la la mën a 78 169 73 52. 78 169 73 52. macha allah xam naa loolu ñuy wax njàng woowu moom feeñ na ci njàng mi. Ah, te boobu de gars yi ñu ngi ngi bëgg xam. Ah. fi nga féete yaa ngi ñàkk rek wala fan nga nekk léegi. waa maa ngi diggante yëmbal ak ñàgg rek. ak ñàgg waaw maa ngi diggante yëmbal ak ñàgg. macha allah xam naa ne na nga xaar yeneen émission ci Proxi TV. ndax ginnaaw koor gi incha allah yóbbu lu ndaw ni mi ngi fi. ak yeneen émission dañ gën a. jaaree sama rakk yu baax yi seen jibi Mm-hmm. ak seigne fallu bima ma leen yagul mom mm-hmm. mi koloban la ne mm-hmm. dama ko woo rek mu jël auto bayyi léppam ni mu jàppoon ñu seigne fallu mais non ñu don nit ñu baax wax deug yalla ma ngi leen di ñaanal yéen ak uh, ki ñu andal di seigne daga jagawaaw ndeysaan damay fatu turam ñu doon ay xalé yu baax waye nak ni rek la li soxna ci wax jang fi jang ñew gi ngeen fi ñew du ngeen te reccu ndax Euh, xam naa ne sama waaj mu ngi leen di déglu. Mhm. bisa ngi ñëw yéen it kenn ku nekk. mu woo la ci kër gi. incha allahu rabbi waaw ay nit ñu baax ngeen. sama sëñ Daaru Assane yow it ñoo lay seer bu baax baax. <laughs> xam-xam bi sell na. Mhm. te ànd na ak yar. li ci ëpp solo mooy yar gi. Mhm. lépp lépp macha allah. ñoo ngi lay ñaanal yow it nga am ngërëmal sëriñ bi. oustaz Kandji yow ku dégg sa kàddu ak eh, loolu dañ naan dégg bëgg. gis bëgg miin bëgg. waaye ku jaxasoog yow xam ne nit ku baax nga nit ku baax nga hmm. sëñ Pape mi moom léppam xasaayit la ko def léppam ci ci xasaayit la ko def ñoo ngi lay ñaanal di ñaanal ñëpp sama gars yi toog fii ñëpp maa ngi leen di sant sëñ Moustapha ak sëñ Jibril hmm. jërë ngeen jëf yal nañu ko yàlla boole yal nañu ko yàlla boole eh, suñu xol sedd na bu baax a baax eh, li nga wax ci oustaz rek moo nekk ci moom ndax man moom mooy sama mooy sama kilifa ci liggéey bi day ndeysaan ku may ku may dolli la kuy diisoog man la ku ñu jàppale ku ñu jàppale la te yàlla tax ndax liggéey bi mënoon naa diis waaye ñun bokk nañ ci ñi gën a noppale ci liggéey bi ndax suñu lépp benn la ndax dañoo ànd te yàlla tax tey lépp loo xamante ni euh, suñu yite la muy sunu kër si liggéey bi ak lu munti doon buñ ci diisoo moom rek dañuy gis ni buntu ubbeeku na ci boo xamante ni ak laay biram ak yaatalam yàlla rek moo tax mu mu am ko yàlla na yàlla fay ko xolam yàlla yàlla gën a sàmm xam-xamam li wajur yi yéene ci moom yàlla na ko yàlla dimbali ba mu egg ca te wajur fekk ko ci daraja rasulullah sallallahu alayhi wasallam oustaz ma bàyyi la rek nga tënk nga tënk jataay bi day faatu moo xam naa ne sañse na bu noppee dina wax ki nga xamante ni moo ko moo ko solo waaw tabaarakallaahu mu ngi noonu alaaj Pape mhm. béggeeti nañu bu baax a baax ñëwati tabaarakallaahu ci ajjuma gi waxtaaneeti li ñu am mooy di tabaarakallaahu sayyidina Muhammad ci njàngale mag ñi kon da ngeen ko déggee bu amee rek mooy dañoo bëgg wan xale yi ni leen am nañu ay royuwaay mhm. tabaarakallaahu ndax keroog jamonoy passé bi ma gisee ñu tiitre ni Serigne Mountakha Mbacké le nouveau Dabakh arrive waaw tabaarakallaahu keroog eh, maanaam maanaam xol yëpp àndandoo rek ni effectivement loolu moom dafa jaar mm-hmm. ndax ku ne xam ne alaaji Cheikh Alaaji baax radiyallaahu anhu ni mu miinee woon magi réew mi mm-hmm. fu nekk mu dem fa keneen ku ne mu gane ji la waaw keroog ba mu demee tabaarakallaahu seeti Cheikh Abdou Ahad Mbàkke radiyallaahu danaa tere tëral naa seytaane nag ren di ko fii mm-hmm. waaw loolu nag la Serigne taxa Mbàkke wane ci réew mépp nag waaw gis ngeen keroog ba Serigne Babacar Sy Mansour lancé euh, liggéeyu jumaa ja la mu ca jox yaakaar naa ne ba léegi la ñëpp dañoo dar seen gém te ci saasi ci saasi yàggul waaw loolu day wane rek ni moom réew mee ko ñëw diine jee ko ñor te moom la ñu am damay faral di wax ne ma kero ba ma demee deuxième man ko ne mag ñii bu yóbboo ñu sant leen bokku ñoom ñii nga xam ne dañoo jiite am yeneen i passeport tey bu réew mi doon tàkk dañuy génn déedéet ñoom réew mii fi la gane ganee àdduna fi la ñu jàngee bu réew mi doon tàkk mar taali fi la ñuy des du ñu daw mukk bàyyi comme nango waxe sank ni dafa bokku ci bakar yi gëna mag màgg atawalla yawma zahfi xare kenn du daw kon ñu ñaanal ko yàlla ba ñaanal mbolem mag ñi seigne Babacar si Mansour Baye ablay Thiaw Laye tabaarakallaahu ak mbolem khulafa yu Cheikh Mahi ness nga xamni tabarakallah ku xol khalifa général bu toll ni mom waye ba legi moytu ci digg jumaay bayam ji di tafsir alquran waaw Cheikh Mahi yàlla nako yàlla defal wér non lañuy sante bu baax ba mbokk yi ñu ànd serigne Daara Assane jaay waxon nako tabarakallah tabaarakallaahu xam nañu ko ci biir ci biti jaxasoog moom tabaarakallah di borom xam-xam borom nee naa ko yow képp ku lay déglu ci yoon wi même bu bokkul ci yoon wi day bëgg Cheikhul Khadim wax naa ko képp ku lay diglu même bu bokkul ci yoon même bu dul jullit sax dana gën a yokk cofeem ci Cheikhul Khadim tabaarakallah ndax yéen rek nag la ñu soxla ndax nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dani al insaanu adduun li maa jël nit lu mu réere lu mu réere daf koy noonu parfois nag yaa koy fexe ba xamal ko nii nii nii la loolu rek la jaajëfal ko baax a baax sëñ ak yitte ji am na solo fu ñu ko woowee moom tamit mu ñëw tabaarakallaahu sëñ àlla yow tamit bég nañu lool ci njàng mi sëñ pap moom mooy suñu magu daara ci kër gi ñaan ñaanal ko yàlla bu baax soxna Ndey Faatu mi suñu rakk tabaarakallaahu bari xorma ta jox ñu ko lool nuyu alaaji Abdu mi nekkoon ci technique bi tabaarakallaahu ziyaara ko alaaji Souleymane ziyaara leen bu baax nuyu tabaarakallaahu nag ñu ko Cheikh Ibra waxee suñu grand yële ca gannaaw nekk fële tabaarakallaahu au fond jaajëfal na bu baax Cheikh Jibril Sow ziyaara ko bu baax a baax nuyu ko ki nga xam ni kenn la ci inte 5 fii ci daayira Nour da ak liggéey Cheikhul Khadim foofu ku ne xam na ko boo xamee ne laylatul xadr tijaani ñëw na muy buub ñëpp daayira bi kenn du manqué ñëpp ni leen tey ca laylatul xadr tijaani fa la ñuy fanaan ba bët set mm-hmm. yàlla na ko yàlla defal jàmm nuyu Hadj Moustapha mi mu àndal bi nga xam ni ni ko Cheikh Bara waxee taal na oto ñëw ànd nañ ñun toog yal na yàlla fay leen ci barke Cheikhul Khadim Alaaji Pape daal bég nañu lool ci jataay bi riche na lool nag waaw amaana nag nit ñi eh, eh, mën nañ koo bañ a miin ci yëf yi na muy ànde ci wàllu xumbaay ak mbumbaay waaye nag tey dëgg dëgg jataay bi gëm naa ne bi ñu koy waxtaanee Seydouna Mohamed mu ngi fi gëm naa ne bi ñu koy waxtaanee Cheikhul Khadim mu ngi fi te loolu rek ci am solo laaj Pape daal bégg nañu lool. asalaamaaleykum yeneen yeneen programme yu nekk sa kanam ndax Laylatul Qadr Tidiane mi ngi ñëw. waaw yeneen bis yu xam ne incha allahu taala xam naa suba ñu ngi bëgg da waxtaanee maanaam njàngale Mam Abdoulaye Niass. incha allahu taala ñu ci ànd ak tabaarakallahu oustaz borom xam-xam bu mag ndax. nii rek lañ ko bëgg nañ ko bëgg defee ndax man am na yu daan xew ci télé yi mhm. man dama dama teel a def vidéo métti du woon loolu mhm. waaw man ni man li ma bëgg mooy mag réew mi bu ñu leen di waxtaanee nañu waxtaanee solution bi ñu nekk ci dëkk bi mhm. waaw nañ leen di waxtaanee solution waaw xam nga tey maanaam waxtu wi moo xat rek waaye tey sëñ daara mi waroon nañ ko war a mën a song ni ko tey euh, sëñ bi lu mu bind ci jëw sëñ bi lu mu bind ci ñàkk jàng sëñ bi lu mu bind ci xam-xam sëñ bi lu mu bind ci étudiants yi nga xam ne tey ñooy wëlbatiku di sàkku xam-xam ba noppi wëlbatiku di ñoom ñu xiif duñu mar duñu rafle yëpp sëñ bind na ci kon mooy la solution kon loolu laa bëgg loolu la Proxi TV nag indi tabaarakallaa mu doon lu am solo ñu ngi ñëw insha allah taala ak mbokki waa nag di sant bu baax ba eh, eh, Serigne Cheikh waaw Serigne Cheikh ñoo gën koo xam ci ci ci xës <laughs> waaw man xës gi du ma maanaam du ko bëgg di wax ndax ñu wax Euh, bi sa ismul fusuq ba'dal iman <laughs> waaw ndax kuy kuy kuy coordonné yëf fii la ko ci sonn waaw ak techniciens yi nga xam ne ñoo nekkoon ci gannaaw waaye daal ñu ngi ñëw waaw ñu ngi ñëw insha allahu taala ci njàngale mag ñi solution bi ñu nekk ci réew mi mhm. Sénégal daal li ko yàlla dénk ci valeur mhm. ah tabaarakallaahu euh, doy na waan mag ñu nekk mhm. mag ñi nekk ci réew mi kenn ku ca nekk yàlla mënoon na la dénk continent lëm maanaam continent lëmb yàlla teg ko ci sa loxo nga jiite ko yàlla dajale leen ñoo ñëpp dajale leen Sénégal fii nañu maanaam nañu ko jëfandikoo nag positivement waaye bañ ko jëlee eh, bañ ko jëlee négativement loolu rek moo ci suñuy te incha allah ñu ngi bég loolu tabaarakalaa di ziar mbokk ñu doon ànd ak ñëpp imaam Rawane Kandji dolli ko ziar ñaanal ko yàlla ak wér mm-hmm. ak gudd fan ak mbooleem ay imma yi fi nekk yëpp tabarakallahu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu aleykum salaam day fatma bayal bàyyi kan rek nga sargal ki nga xamante ni la su ko ñu bu baax baax si jilat parole ya, eh, bi ndax yaakaar naa kilifa yi moom bu ñu waxee ba pare jëlaat bi mënoon binet ñàkk waaye juste que faaw ñu wax ci borom Alé Couture hmm. ndax heure bu ma jugee ne maa ngi dem émission moom mu teg si si mu teg li nga xamante ne moom moo di tissu hmm. daal di ciseau ko ba mu rafet ma ko mun ma solal nga dem defi jee ko sa émission kon kooku aw fayam hmm. maa ngi lay gërëm bu baax a baax borom Alia Couture di la ñaanal yàlla jàmm bu bu baree baree lépp loo bëgg ci sa métier bi yàlla na ko suñu borom defaral kontaan trop ci yow nekk fii ci Kër Massar jàkkaarloog maison de justice bi numéro de téléphone bi nekk 78 014 42 19 78 014 42 19 merci beaucoup beneen borom Alia Couture merci Pape. jërëjëf Ndeye Fatou fàttali nga ma oustaz ki muy sant nii a solal. ci ci ci émission yi ñuy def ci télé yi maa ngi ni ñu ko waxee woon ci tàmbali bi rek moom itam ku sonn ci émission bi ku ci jàppale ku ci def ay teranga la yàlla dëgëral taxawaayam ak way juróom bu jigéen bàyyi tëyër borom Firdawsi maa ngi koy sant bu baax ndax lii ma sol moom moo ko def ngir yàlla ak islam ak bëgg lu baax numéro téléphone am nekk 77 263 52 68 77 263 52 68 te du bii rek la def te xam naa ne yeneen mi ngi si kanam maa ngi koy ñaanal yàlla may dolli place am waaye dolli ko barke ak tawfiix ak gu ànd ak taysiir ci daraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Pape Ndiaye mi nga xamante ni moom la ko joxoon mu indil ma bi mu ko indi sax fekk moo fi waaye mu bàyyi ko fi ngir yàlla loolu taraanga ju rëy la di sant bu baax a baax ñi nga xamante ni ñooy ko Serigne Saliou peinture ànd ak ñun émission bi dooleel ñu bokk sponsor yi nga xamante ni ñooy gunge ñooy gunge eh, ñooy gunge liggéey bi yàlla na yàlla dëgëral seen taxawaay di sant waajur yi di sant mboolem ñi ñu seqaloon plateau bi di ñaanal Proxi TV suñu borom yóbbu ko ci kaw ci kanam ci lépp lu baax ñi nga xamante ni ñoo doon taxaw liggéey mooy réalisateur bi technicien yi preneur de son yeeg ñëpp yal na yàlla dool leen jàmm di sant soxna si ak njaboot gi ñëpp di ñaan suñ borom defe ñu jàmm ak tawféex incha allah ñu jox leen dig daje ci yeneen émission yi nekk ci kanam ak yeneen surprise yoo xamante ni ñu si jërëjëf Proxi TV yaaraama